da ngeen am rendez-vous ak Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ca Fès yàggatul dara ay fan yu néew moo ci des place yi des sax bëreetul kon nag dem ziyaare ji Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ca Fès lu ko dalee 30 août ba 6 septembre pak ziyaara bi 550 000 francs dong la kenn ku nekk bu dee couple ngeen 1 million de francs CFA lay doon pour ñaari nit te it moo gën bu fekkee ni da ngaa bëgg a jàpp sa pap wala sa yaay ci loxo yéen ñaar ngeen ànd Tidiane Chérif mu daal di lay ñaanal pak bi am na vol aller retour hébergement hôtel 3 étoiles transport bus climatisé Casablanca raba Fès pèlerins yi daañu leen assisté bu baax te yéen ñëpp ñi ci dem di ngeen fekkee la grande conférence de Fès ci teewaayu xalif de la Tijaniya fekkee it hadratul juma wazifa ba noppi ziyaare mausolée Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ziyaara ren bi benn promotion dong ci am muy bii mën ngeen a woo madame Ba ci 78 604 66 66 78 604 66 66 wala madame Diallo ci 78 607 47 47 78 607 47 47 dig daje ci avenue Bourguiba jano ak manège des enfants bu Africa Park. bonsoir chers téléspectateurs ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di am contentement comme ni ñu koy defee tous les 15 jours ñëwaat nañ ci seen euh, beneen numéro euh, Kakatar bienvenue yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñi ñu ngi toog ci salle yi ñi toog ci perron yi vraiment ñi toog ci biir néeg yi ah collé serré di seetaan Kakatar Kakatar nag comme ni ngeen ko xamee nee naa leen la tim elle est là au complet kenn manqué wul ñëpp a ngi fi donc li may def nag mooy damay commencer comme à chaque fois fi may commencer muy euh, inspecteur des inspecteurs ndooy jaajëf ci waaw sant rek ñu lay sant di sant euh, équipe bi ñëpp ak euh, invité yi. Mhm. di ziar Sénégal yëpp kilifa diine kilifa aada yëpp ñu leen di nuyu bu baax a baax. Euh, fas yéene ñëwaat seen émission Kakatar. Mhm. comme ni nga ko gisee rek su thème bi ñëwee rek ñu développé wax li nga xam ne ñoom moom lañ ci xam. Mhm. ci yar ak teggin pour que sénégalais yëpp mën cee jariñ. macha allah jërëjëf inspecteur des inspecteur inspecteurs des inspecteurs. de tous les inspecteurs. de tous les inspecteurs. c'est ça. c'est bien chez ça. waay les inspectrices aussi. ah bon. oui. ah teg ci. y des inspectrices aussi. Hmm. ñaar fii benn fee. <laughs> ah. ma ne ñaar fi benn fee. sama gars yi. <laughs> yaa ngi leen di yëngal de. Ah, <laughs> voilà jërëjëf euh, Ndoye euh, euh, dañuy dem nag ci ki nga xamante ne mooy Pendo Ndo ñu ngi lay nuyu. borom commissaire ana bi. wala boobu kii nag. maa ngi lay am na bu bees. Ah, am bu bees. <laughs> waa Gambie waa dundu loo fekkee la tudd. Oh, waa nuyul. voilà maa ngi wax asalaamaaleykum yéen yi nga xam ne yeneen si seetaan Kakata tous les jours donc maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa adduna bi yëpp di nuyu waa Gambie surtout di nuyu nag monde entier. di leen wax tubarkalla masala yu bees yaa ngi noonu rek jël ko ñu kafe ko waxtaanee ko dunduloo loo fekkee la ñu wax. Mm-hmm. asalaamaaleykum yéen ñi toog fii nii yëpp. nay lan ay neex. ah neex. na neex na neex <laughs> ayca aliment Alima alors euh, euh, ki nga xamante ne nag ma top mooy euh, jongama 2 point 0. dëgg la. tey tey loo def vert nga def def tulle ci kaw nii. waaw. def plonge def lu ma saf rek la. def lu ma saf xam nga wax naa leen ne boo jongomaa loo def mu dagan. maa mm. jongoma xam ko xam nga li ma boolee bari damaa jongoma ba bari mignon lu ma def day rafet. te du sama bés de tey ah. jii man xam naa ko. yàlla nuyu Alima maa ngi maa ngi lay nuyu PDG Youssou Ndoura Wali Bergane maa ngi lay nuyu di la ziar billaay nuyu naa la de ñoo ngi lay nuyu Mag Pendo ñu ngi lay nuyu ñeneen ñi nuyu ñu la gaaw ñun ñaar ñu ngi lay nuyu. <laughs> alors maa ngi nuyu bu baax a baax àddina bi yéen yu ñuy seetaan ah ci Kakatar macha allah 15 jours bu jot rek ñu ñëw toog jàkkaarloog yéen ah ñu fas yéene rek teg. débat bi ci plateau bi ci débat bi ci kaw taabal bi ñu tas ko may nuyu waa Tambacounda sama dëkk di nuyu waa àddina bi yëpp yëpp ñëpp di leen bégee di nuyu nag tey moom damay nuyoo tey damay nuyoo lu ma saf tey tey yaawa lu ma saf lay doon ndax tey damay jongo ba pare damaa gis PDG damay nuyu waa Esquisse Beauté bu ci baar Esquisse ak taw Tawféex ñi ma fël ci or tey ci émission bi yàlla baax na mu ñor rek nañ continuer ak suñu sago <laughs> jërëjëf <laughs> lii kan moo ci mën dara. kenn kenn mënu ci dara kenn nañ muñ rek yàlla baax na. ayca jërëjëf aliment donc euh, dañuy nag euh, nee naa leen chaque fois. Kakatar dafay am ay invité tey nag euh, di ngeen gis nii vraiment dañu changé un peu indiwaat ñi nga xamante ne dañ leen fi indi woon ñu def waxtaan yu am solo. Mm-hmm. vraiment gars yi apprécié xam nga Kakatar émission boo xamante ne euh, amaana ñun ñoo koy commencé nii mais moomuñu ko mhm. population bi ñoo ko moom ak mhm. waa diaspora vraiment population sénégalaise diaspora bi nga xamante euh, ñoo nekk euh, ci biti ñoom ñëpp ñooy safoo Kakatar vraiment mhm. bëgg ko bañ nañ ko yëf yi nekkatu suñu yëf ñoom ñoo ko moom ñu ngi wax sax nañ koy teel a teg voilà ah waaw ñu ngi wax sax nañ koy teel a teg waaw parce que ñoom day guddi ci ñoom dëgg la diaspora bi donc dañ koy teel a teg dañ koy teel muy euh, Serigne Ngagne moom aussi il n'est plus à présenter Serigne Ngagne ñu ngi lay nuyu euh, du ma ne sax dalal plateau bi moom yow min nga ko. waaw mais di di am contentement ak mbégte rek. ci dalal bi ngeen ma dalalaat. <laughs> mel ni sax euh, ci laa bokk. comme ni nga ko waxee. dëgg du leen kenn lépp ñëpp la lu ne ku ne nga ca. Mm-hmm. Mm-hmm. mais di bëgg rek ci doole bi émission bi am. Mm-hmm. adduna yëpp di ko bëggee. day rendez la boo xam ne ñun ñëpp dañ koy toog di ko xaar. ndax yi am solo yi ciy génn. nekk njëriñu askan bi looloo tax émission bi euh, fu ñu ko natt rek weesu na foofu kon dañuy profité ci occasion bi nuyu képp koo xamante ni yaa ngi seetaan émission bi di ko béggee di nuyu Sénégal yëpp képp koo xam ne tamit suñu fans la nga xam ne tey bu toogee ci plateau tey bu romboon télé bi gis la rek dane eh xaaral ma toog xool sama waa ji xam lañ wax parce que yooyu day am ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ziar réew mi yëpp comme ni ko ñëpp waxee jërëjëf sëñ Ngagne yow disponibilité bi ñu ngi lay remercier alors tey aussi dañu am beneen invité si suñu plateau euh, moom nag euh, mi ngi tudd Mariama Sow Mariama ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm di la bàyyi nga nuyu téléspectateurs yi. merci Awa merci à tout le monde qui est là man tam maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëgg bu baax a baax et puis di kontaan ci ñëw ci sa plateau Kakatar parce que danga yaa aw you you buzzing. <laughs> merci beaucoup c'est gentil <laughs> merci Mariama c'est vraiment. Euh, nga nekk nit ku baax ndax depuis sànq ñu ngi toog di waxtaan à mm-hmm. change ndax mënoon na ñëw rek aju mais ñëw vraiment mm-hmm. bokk ñëw rek mm-hmm. kakataan nii rek ku ñëw da ngay bokk ñun fii ay ay tëkk ñoo fi nekk bi lañ ndeysaan freestyle la ku ne fu la neex ngay jaar alors euh, kii nag ki ci des nag moom à chaque fois moom laay mujjee présenté fara ci ki cawaan maar fara ci kii cawaan ah? maar cawar maar na leer fara ci gi cawaan ciki du ciki. lan la fara cigi sawan maar. ah gumbala borom jaam ñi maama ma dëggal bu tugal mu fay ko médaille. Bakal Modou Gueye waaye. ah man nag yooyu xam kii Modou Gueye Monaco la arrêté leen nee na leen bokkul fara cigi. Monaco la bokk ngeen nuyoo téléspectateur yi. asalaamaaleykum. fay nañ la. <laughs> nañ yeggale suñu sago. yàlla baax jërëjëf Modou jërëjëf. alors euh, euh, gis ngeen nag euh, plateau bi mu ngi nii tey nag indi nañ leen thème bu am solo. mais avant que ñuy dugg ci thème bi euh, li ñuy def euh, mooy euh, dañuy introduire suñu artiste du jour xam ngeen ne Kakatar ginnaaw waxtaan bi ci plateau bi dafa am de l'autre côté ah ku wax waxtaan wax ambiance samedi soir lañ wax mm-hmm. donc loolu nag ñun ñëw leen ko digoon fas yéene chaque quinze jours rek ñu koy respecté alors tey nag ki ñu dalal muy moom tam kenn dootu ko présenté bokk na ci nouvelle génération bi mu ngi toj mi ngi def lu am solo gone goneb Grand Dakar gone demal demal foofu goneb Grand Dakar la kii macha allah gone Grand Dakar. xaalis yàlla Mouhamed ba bàyyi ma dàq woy ci réew mi. macha allah mooy woy naan mm, di di miime tar ba na dem ak sagoom. ayca tey kàkk tar dana métti daal. di la dalal jàmm di la bàyyi nga ak mhm. bu baax a baax na ci ñoom fi tey di leen digal. dëgg xamal nag dina yàgg dina neex. maa wax loolu boroom xiir gi ñëw na. tax ñi yëngu sama ñaar ñi nga xam ne seen tànk yi dafa oyof. pare ngeen man ngay may yaay faali baay faali. ay faali laay may morceau bi. bisimilah Tarba balaa ñuy dem seetaan reportage ki nga xamante ne mooy Habib Faye micro trottoir bi muy def à chaque fois ba daf ñuy may euh, benn son rek ñu daal di dellusiwaat ay ca Tarba. yërmande doolay bay faal yërmande yi doolay bay faal yërmande muy doolay bay faal am kilifaay li am solo soo ko amee am na solo soo ko amul solo solo ku wéruwul yomba ba ma xëy ayi waaw bay du fen bay du jëw te du sàcc moom du mooy yàlla du wax nit bakkanam Chérif Assane bàyyi Serigne Manel a doon ma taxawee

ko jox bañ nga Cheikh Anta mii sama mbaxana maa ngay dem affaire bi bëri na ko. dafa war a dem man ndekete changé naa tar ba xam naa ne lii lancement la rek film bi dawagul ci kanam tuuti yëpp yi dina gën a. film bi jeexul yaa wa nga yaakaar ni. ah Mbadou lii film bi la ñu. ñun Mbadou ñii sax ñoo def lancement li film bi la. film la du tar ba lii lancement la de. 10 heures la lii 10 heures. waaye yéen ñëpp laay dóor ay coups kon. di xool di di di testé soxla. mais maa ngi ñëw ci kanam yaakaar amul yax yi damm foofu karat ji ma doon dégg ah jërëjëf jërëjëf Tarba dinañ ñëwaat ci yow incha allah ci kanam tuuti léegi nag li ñuy def mooy euh, euh, pour lancer thème bi dañuy dem seetaan Habib Faye moom mi nga xamante ne dox na un peu partout dans euh, jël li nga xamante ne mooy abi sénégalais yi à tout de suite. amis maa ñëwaat di leen nuyuwaat ñu fas yéene waxtaanee waat beneen tem ci seen émission Kakatar tey dañuy wax wàllum polygamie inconvénients yi avantages yi. ak tamit nan la ñuy téye góor ñi ci biir kër yi lan moo waral itam seen borom kër yi léeg-léeg ñoom ñi génn bi uti ay maîtresse donte ay polygame lañ wala sax ñu nekk ay monogame loolu yëpp dañ ko fas yéene xool lu ko waral askan wi ku ci nekk am na ci loo ci war a mën a wax ñu seeti leen te ñëwaat. même boo nekk un homme polygame il faut nga mun a gérer. góor boo xam ne tamit am na tuuti fulla daal di nga mun a gérer le foyer. 99 pour cent des hommes. ñu am benn jabar dañuy amaale maîtresse polygame de ah moo ne nag moo ne mais il faut tamit nga mun ko gérer nag il faut nga mun a gérer polygame yi boobu. mun nañ am jabar aawo bi bu ñu amee ji aawo bi am na ñoo xam ne peut-être mun nañ leen satisfaire à 100 pour cent dans tous les domaines daal laay wax peut-être mun leen satisfaire ñuy dem seeti leneen daal. moo benn rek baax na jamono bi moom dafa xaw a métti quoi xaw a jéem a yem ci benn jabar rek sa instant instant amaguñu jabar ñu ngi ci jabar moom bàyyiwuñ ci xel instant yi jabar moom instant yi moom xamee du sonal borom kër xanaa nga nekk ci xam comme sa liggéey bu doxul noonu mën na laa sonal waaye bu nekkee ci yaa ngi ci waar bi di liggéey mënu laa sonal. ndax loolu moom amul nag ndax suñu wàccee ni dañuy dem toppatoo leen defar ba mu baax waaw balaa ngaa kii ji nga teel a defar lu ñu koy defaral yëpp. doo ko xëy si am ñoo xam ne daal moom ñoo bëgg a takk nii rek waa bëgg ay ñaar ak ñett affaire yooyu noonu waaye du question liggéey du question affaire yooyu bu kii yooyu noonu. non man kooku du ma ci commenté parce que góor bu nekk war nga am farlu nga am lu la jabar dafa am limite man nga am ñaar benn ñett ñeent man nga am benn na boo mënul mais mais boo déggee góor benn jabar mooy góor bu rafule boo amee benn mbubb saay bu tilimee boo koy fóot da ngay rafle doo soo doo sol yére kooku bari na même bu amee benn sax day am day am convénient kooku yàllaa ko def di nga am dooma yu bari parce booy takk sonn pour nga njaboot moo tax njaboot yi moo tax yàllaa ko sant pour ñu takk soxna yu bari pour ñu xeet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est mon choix moi j'ai choisi d'être polygame monogame parce que en réalité je je trouve que je gère ma famille je peux je peux je peux je peux je peux gérer mes enfants c'est am nga am am plusieurs maisons dugg fi génn fii là je trouve que dafay jouer un peu sur l'éducation des enfants. xam nga avec euh, la vie qui est difficile léegi bon xam nga en fait boo seet li ñu yàlla sant mooy yàlla dafa la nga def loo mën mais am euh, am am plusieurs femmes fii avec une marme avec avec de marmailles. et tu n'arrives pas à satisfaire il faut nga jàng il faut nga am ko toppatoo bàyyi voilà donc di remercier Habib fay euh, moom mi nga xamante ne moo ñu euh, jagleloon <laughs> élément boobu noonu <laughs> alors tey nag gis ngeen thème bi li nga xamante ne moom la ñu indi tey fas yéene ko teg ci plateau bi waxtaanee kook sénégalais waxtaanee kook aussi ji nga xamante ne ñoo toog ci plateau bi muy euh, polygamie monogamie alors. coow li bëri na les causes et les conséquences donc loolu yëpp dinañ ko euh, gën a yaatal euh, ci kanam tuuti inconvénients yeeg euh, bëri na ay yëf donc loolu yëpp dinañ ko gën a gën a développé ci plateau bi avantage et inconvénients alors Ndoye ci yow laay commencé comme ni ma koy defee chaque fois comme d'hab comme d'habitude voilà ouais. alors Ndoye <clears throat> nan nga gisee li nga xamante ne mooy polygamie fii ci biir Sénégal polygamie mhm. ak monogamie polygamie mooy am jabar yu bari. waaw gami mooy nga am benn waaw. su fekkee ñun jullit de dañ suñu diine daf ñoo digal pour ñu am. ñeent poly poly à partir de deux pour ñu am ñaar ba ñeent. pour ñi nga xam ne nekkuñu jullit moom dañ leen a kii pour ñu am benn. Mhm. man polygamie baax na lu baax la ci benn côté mais am na ci côté boo xam ni baaxul. bisimilah ndax Sénégal fii li ma fi gis polygamie ñi ma fi gis ñi fii ñu am jabar yu bari ñu ci bari nag du ñëpp euh, dañuy dañuy foyee jigéen wala ñuy foyee seen bopp wala ñuy sonal seen bopp. maanaam. contre naa ci góor gu am ñaari jabar te amul kër. Hmm. yow danga ngaa loué amoo loo lekk sa jabar amul lu lekk soo sa jabar ëmbee sax ordinance pour nga jënd ordinance problème la. Hmm. ngay taxaw naanu yow waaw yor naa ñaari jabar yoo benn nga yor di ko bàkkoo. man bëgg naa dëgg na d'accord naa ci ku am ñaari jabar mhm. ba ñetti jabar ci kaw nga mën ko li lislaam wax ci jabar dañu yaa koy dëkkal yaa koy dundal yaa koy dëkkoo yooyu chart yooyu nga xam ni eh, lislaam dala koo teg ca sa benn jabar bi nga yor matuloo ci dara ba pare wut keneen teg ci moo taral moo tax la femme sénégalaise dañuy sonn dañuy souffrir am na ci góor ñoo xam ni dañu am ñaari jabar yàlla ba ñuy ba nekk jeune peut-être Euh, ba wala ba ñu mënagulee dara seen parent yee dem nobante ji ci àll ba ñëw takkal leen mhm. ñu màgg ba yàlla indil leen wërsëg ñoom ñu dem nobante ji takk mhm. ñaareel bi man maa ko takk ko waaye aawa bi sama ñu yaayee ko noboon takk ko mhm. mu doon ñaari jabar yoo xam ne kenn ki da nga koy bàyyi peut-être dëkk ba ki ci des nga indi ko fii ci dëkk bi soo xoolee sax waa ji en général euh, ki mujjee takk lay gën a nob loolu tamit day indi ay ay ay ay problème mais li nga xam ne daal ci polygamie nga xam ne dama koo contre ba contre ko bañu ma ko sëriñ Ngañ mi waaye di def daal na ko mën na ko mën te fii Sénégal góor ñi ci bari li ñuy def mënuñu ko loolu tax jigéen ñi koo ci gis ma nga feebar ñu ngi sonn soo demee dans soo demee ci région yi fa la fa la fa la yow tey jii si nooy nekkee sax sa kër baay takkum ñaareel yow sa baay góorgóorlu ba takk kër utal la yaay ju baax dugal la fa yow ngay nga yagar yagar yi ba takk jabar dugal ko fa amugoo kër nga takk benn jabar dugalaat ko fa ñàkk ñàkk jom mënul weesu nga am nga dëkk sa kër baay takk jabar takkub ñaareel dugal ko fa sa kër baay yow dong moomoo ko mm-hmm. d'accord naa nag nga am benn jabar di kër kër yi ba am kër tabax sa kër ba mu rafet takk sa ñaari jabar sa ñaari jeeg dugal ko fa <laughs> lal man loolu ànd naa ci mm-hmm. man ci loolu laay waaj a def sax man ci loolu laa ne ah? waaw waaw ñaari waaw soo amee kër moom takk ñaari jabar moom moom moom loolu mu amul problème mm, voilà mais soo gisee méttiwaayu dëkk bi lu ci bari polygame bi ci la bokk de mm-hmm. mooy ñi koy def te def lu ñu mënul d'accord ci conséquence yeeg yooyu causes yeeg yooyu dinañ ci ñëw ci kanam li introduction la woon rek alors euh, <coughs> Pendo tu es pour ou contre polygamie. maanaam àndoo ci. maanaam teg ci ànd rek pendoo na ko nga français. ah non pendoo nag pour ou ah. da koy lakk non non dama ne da nga doon nappe si <laughs> anglais. non non du ma ko wax fii a boobu de fort. <laughs> ah que tey ànd nga ci ci euh, polygamie que tey pendoo. Mm-hmm. Euh, nu mu gisee peut-être société sénégalaise nu mu bindoo est-ce que pare nga tey pour dugg ci mariage polygamie wala yow boog yow man kese. ma mari xalaatuma ko ci àdduna. xalaatoo lan man dong ci benn kër duma ko def jéem ko sax mënu ko sax. maa la wax loolu. man balaa kër ga di ma neex ñu nekk fa ñeent mbaa ñu nekk ñett man bañ naa ko ba première position sax waxaale wu ma ko. Ah pour lan semaine bi ñe juróom sept jours la lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche du dëgg. ceebu jën maafe ak yooyu ñun suñuy palaa bariwul yooyu rek la am <laughs> kon góor gu fi am benn jabar tubarkaala daanaka nekk ko ci jàmm ak làmp kër bala moo neex nga am ñaari fan mu dem feneen am fa ñaari fan nga mën a réfléchir yow. nekk sa bopp nekk sa bopp moom mën sa bopp. démb defoon nga lii suba da ngay nii. est que mën na ko. man waxuma loo waxuma côté ñëwaguma ci côté ku ko mën a ku ko mënul. dama nekk côté position laa wax. mooy position boo xam ne xale bu jigéen bu ci am fit te ñeme. mbaa góor gu ci bëgg sa bakkan bëgg neex neex. njambaxtaan yooyu noonu da ngay am ñaar ba ñeent <laughs> maa loolu benn jabar doo ci kër muy yee bu toggatee ceeb bu xonk bu subaa mu def ko ceeb bu weex ginnaaw suba mu def maafe suluxu ñun yooyu la am da ngay changé hmm? da ngay changé laa la wax boo toogee te ñaari fan am nga ak ay kii de maa la wax loolu ñeme naa loolu déedéet dama dama gis ñu ñeme loolu te loolu méttiwul mais mais mais yow nan nga gisee mariage polygamie fii Sénégal wujjante beeg <laughs> def waaw wujjante bi li ci problème bi yow boo nekkee aawa ñaareel bii ñëw xamoo li mu indi parce que am na ñoo xam ne peut-être gàllaaj yi lañ ciy ragal dañ fekk si ba pare jëlee la fa mbaa nga fekk si fa nit ba pare bëgg ko faa jëlee mm-hmm. loolu moo ciy problème bi mais bu fekkoon ne rek li may xalaat ngay xalaat bu dee jonge la rek ak yu baax yi kenn jàmm la bëgg bu ko amee góor gu ko am fenn rek tëdd na la barke alaaji Malick laa la waatal du buuse meetar waaye liggéey bee tax dañu ñëw ñu daal ay gàllaaj ak ay sëriñ kii di dem Tuuna Karat <laughs> c'est que waaw non dama wax xam nga xam nga xam nga lan la. ndooy man damaa yërëm jigéenu Sénégal. Ah, waaw góor góor ñi dañ leen di nax. ndooy ekk ko foofu dinañ ñëw. dañ leen di nax rek ma ne yow ba ma pare. ma ne ma ne ma def tour premier tour de table après. xam nga tax ñu ragal. Mm. boo gisee wujju nit di ko ragal laa wax. kii ñëw xamoo li mu andi. Mm-hmm. kii ñëw bu fekkoon dafa andi rek ñun ñaar ci lu baax togg yàq defar ba mu baax ci ku góor ki rek ñu di ko toppatoo noonu rek di ko defaral yu baaxam yépp yu mu soxla non kon kenn du ragal wujje mais kii ñëw mën naa indi paa ba ak mère ba ñu ñëw di jàmm di la jox ngay naan problème bi foofu la mais bu dee pour gippeeg taaje kenn ragalul lool jërëjëf lu ma de xam nga lu ma de kii wujjeeg man laa yërëm ah léegi yow. Euh, Alima jënd wujjeeg man. Oh. léegi yow question bi ma la bëggoon laaj. ñi ñu ngi ñu ngi seen vie réel instant. <laughs> loolu dafa garaaw. ngeen la lan lay ragal. Alima wujjeeg man. yow lan nga xalaat ni peut tey mooy pousser góor ba mu ba mu euh, vraiment dem ne day takk ñaareel ba ci ñetteel ba ñeenteel. bëri nay facteur. bismillah bëri nay facteur yow tu es pour ou contre. waaw ah, man boo <laughs> xam nga déjà man mat naa ñeenti jabar. Eh! barke incha man wujjantewu ma kenn. ah mat naa ñeenti soxna. wax du am ak takkoo sax nag teg ko ci kaw. Ah. waaye dama ni góor yi nga xamante ni dañuy dem di takki. li may ree dafa garaaw c'est que bari ci ma man sama wujju laa yërëm j'ai pitié de toi yow mi may waaj a wujjeel euh, au fait damaa xam ne ah? danañ xëy ci biir kër gi wujje wujje dafa garaaw yéen c'est que bi ngeen indi tey da ngeen comprendre lul ah. wujje boo koy wax sax si ñaari tuñ duñ laalante wujju ëpp nag ya yow kii xam nga léegi sa biir wax ñëwal ci sama question lan pour ou contre tu es pour apparemment wujje hmm. bon man bu hmm? dee man boog wujjee amul problème man. Hmm. mën naa wujjee y a pas de souci. <laughs> ñàkk pexe. non pas ñàkk pexe. parce que maa xamante ni <laughs> man su ma wujjee dafay neex. mais ñàkk pexe moo tax ngeen accepté ko mais ku sañoon yow dong sa góor. doy foofu euh, lan muy poussé góor bi. Mm-hmm. peut-être lan lay gis wala lan moo koy poussé ba mu moom mu dem vraiment jël décision ne day takk ñaareel. wala ñetteel waaw moom laa doon tontu nag far nag kii di ma doon. facteur yi <laughs> facteur yi bari na. parce que am na comme ni mu ko waxee am na góor yoo xamante ni euh, dañ leen a takkal jabar après ñu dem ba àdduna di dox ñu gis ku ñu bëgg ñu takk ko. Uh-huh. am na ñoo xamante ni amuñu jàmm seen kër. Uh-huh. comme ni koy waxee am na ñoo xamante ne amuñu jàmm seen kër. Uh-huh. parce que euh, jamono bi dafay dox léegi nit ñi jigéen ñi ñu ci bëri amatuñu jot. toll nañ ci jamono yi damay liggéey toll nañ ci jamono da ngay xëy damay xëy toll nañ ci jamono am na kër yoo xam ne jéeg taajalatuñu seen i jëkkër añ. taajalatuñu seen i jëkkër reer jànq bay def lépp mooy fóot mooy paase mooy togg mooy def lépp ci biir kër gi mooy taajal sa jëkkër moo koy defal kafe moo koy defal lépp jànq yi ci biir kër yi di sëy ñu ngi sëy ñu ngi sëy ak jëkkër yi mais Alima est jamono xëy na moo ko laaj parce que tey bu bu bu bu comme ni ñuy wax ah. Mhm. Euh, sa jëkkër bu indee bu dawee gauche. Mhm. Euh, aw gauche yow nga aw nga daw aw droite. tamit mhm. ngeen daje ci kër gi. ku nekk euh, nga bañ ko bàyyeek yëf yi rek moom kese mu gérer ko. bu defee benn yow nga def benn wala bu defee benn nga def moitié est-ce loolu tey moo doy nga ne. ah est-ce que du loolu teg moo indi situation bi mhm. moo indi situation bi mooy bi mais man je pense que ak nu mun mënti demee rek oto nu mu fees fees boo demee nul ma góoru Sénégal liñ bëgg mooy su midi jotee sa jeeg jaagar jaagar tegal la ceebu jën bu fatt taraj jox la lëwal ak caaf loolu lañ bëgg ñun soo ko deful nag ba mbindaan ma jekk loolu defal ko ko su ko takkee ñaareel c'est euh, bul woo woo woo taba tar xaw ma tar barkaal la xaw ma ni ko nangam ak na tar ba mbay waaw ba mbay <laughs> bul woo tar ba mbay di ko expliquer dara may ma ma yeggali merci waay da xoolal yaa ngi dégg facteur boobu aussi mu ngi ci jigéen ñi amatuñu jot nekk beneen beneen bi nga xam ne nag moo gën a garaaw léegi euh, nekkatul sax jigéen yi nga xam dañuy xëy di liggéeyi wala di def non non non réseaux sociaux bi lañ topp. Mm. groupe yi. Mm-hmm. cas yi potin yi. problème yi da gis ku teg diwlinam diw ba tàkk ndax mu ngi lijjanti yaa awa lañ ko waxal wala alimatu luñ ko waxal wala pendo luñ ko waxal ca facebook ba ñu dara nekk ci biir waay pendo pendo yan góor ñoo bëgg neex pendo nag kaay ma dimbal la xam nga foog ñu accepter aussi que wujjee àla kul yàlla dafay am ñun jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi nañu arrêté ñun jigéen ñi ñoo ëpp góor ñi te bi ñu demee ba l'islam daganal ne bu dee mën nga ko nga dem ba takk ñeenti jabar fa la wax ji nekkee mais bu leen ko teg ci affaire de ay facebook wala whatsapp teg am na góor yoo xam ne buñ liggéeyee ba wàcc dina ñëw nuy seen jabar ba romb ko talu mm-hmm. gis naa ko fi non non pendo bi ma bi ngay wax yow mi may gis chaque jour na ñoo xam ne buñ lay gis chaque jour que soo leen bëggantee vraiment. waaw yow ah, euh, may di ngeen am di ngeen am occupation di génn dem di ngeen ñëw du ngeen tëju 24 heures sur 24. <laughs> Ah, loolu d' accord ma ko waaye Penda gisee na da ngay arrêté da ngay arrêté. waaw léegi bii leen ma tegal bàyyi yow yow ma ma daaneel Penda gisee yow ak Ndoye Bane baax na <laughs> dama ci boole wax ju bari est-ce que comprendre nga yooyu yëpp facteur yooyu yëpp dafa nekk te budul loolu sax na gis nga problème bi lu ko tëral lu ko jeexal hmm. biñ demee ba ne l'islam daganal na ñeenti jabar ci soo ko mënee. fa la wax ji ci soo ko mënee. waaw mais dafa am ay dafa am ay conditions yu ñu la ci tegal. am ay conditions yu ñu la ci tegal. Mm. waaye nag tamit am na beneen parti boo xam ne doo ko d' accord muy góor ni ko ndooy maan waxee. Mm. yow lekkoo nelawoo say nelaw doyul. <laughs> lekkoo naanoo say nelaw doyul dégg nga jàngaa faamaa tinaa tindi naak mm. vraiment yow dèjà yow fardoo nga sax ci sa jabar problème nga dem gis beneen jabar tamit nga bëgg koo indi indi nit ñi cadeele ci biir famille doom yi di judd do non mais nañ waxtaan wax dëgg jàlla boo ko mënee def ko soo ko mënul bu indi nit ñi problème mm-hmm. parce que xale yooyu ñooy màgg nekk ay rancunier nekk ay doom bàyyi di doon ay rancunier mm-hmm. ci famille parce que mm-hmm. situation yu ñu juddoo ba màgg ci détails yi am problème yi am a a na solo trop yooyu yëpp dinañ ko ay sous thème la dinañ ci ñëwaat jërëjëf Alima alors fi may ñëw nag mooy euh, damay dangay évacuer jigéen yi ba pare soo koy jox góor yi euh, euh, Mariama alors dégg nga un li nga xamante ne moom la euh, waa plateau bi wax alors yow tu es pour ou contre moi suis 100 pour cent pour ñaw dëgg la da nga war a am ñeenti jabar jigéen waaw waaw uh-huh. parce que en fait man li ma jàpp c'est tout simple mm-hmm. bokk du lu ndaw la ñuy bokk wala benn moo mm-hmm. ne mbokk danga naan nañ bokk mm-hmm. waaw boo waree bokk nag da ngay tasaare Mm-hmm. da koy yaatal. voilà ah, da ngay yaatal. <laughs> léegi boo yaatalee nag mën nga cee am pour man neex-neex ba ëpp leneen daal. Ah, waaw mm-hmm. maanaam te comme ñun ay julit lañ. Mm-hmm. te dañoo kocheel case boobu. mais nangu jënd ci rubañ yaawa. waaw mm. maa la loolu. Mm. <laughs> ah les femmes disent nous on est moderne. on veut la mm. parité. on veut tout ce que les on, on veut faire tout ce que les on va le li ah. góor def dañ koy def. kon nañ dëggal suñu bopp nag. maa la wax bu dee mënoo bi nga bàyyi yaawa def ba ah. ma ne jeeg dëgg bu dee tam nga bàyyi yàmm laal wala alima wala. am de nekkal ñaari nit. Hmm. ca kër ga yaawa defante day mat tay baas yi génn marinière yi génn sa xol belli. Badou lu amul concurrence neexul. neexul après ala après xam nga seen wax yi yéen ñett ñi li ma ci seetlu mooy. ñaang <laughs> ma ciy limaale. Oh, excusez-moi de personnaliser la débat. mais en général jigéen guy nangu. <coughs> bu ñu nangu mm. naan polygamie accepté naa ko góor dafa war a ñeenti jabar mm. c'est parce que dafa sëy ba divorcé attention non waaw déglu leen waaw mais pare waaw waaw léegi waaw léegi wuy leen ma taxaw leen nañ ko bàyyi mu yeggale oh bien xaaral ma ñëw non non s'il vous plaît monsieur Bane man je parle de mon expérience personnelle je parle pas pour tout le monde. voilà parce que xaw ma la vie de tout le monde. voilà moo tax ma globaliser ni yéen ñetti ñii. soo foo gis nga non soo da ngeen a dem ba xam ni yéen ñii ñaareel ngeen mën a doon wala ñetteel wala ñeenteel. mais ñun ñaareel lañ doonoon mënatoo leen a nekk aawoo. déedéet moo tax ngeen bëgg a valider affaire ma expliqué la benn affaire. benn jigéen benn jigéen bëggut a wujje. sëy sëyaata ci dàq amul benn jigéen bu bëgg a wujje ci àdduna bi. ma ne sëy sëyaata ci dàq xam ngeen ni ñaareel ngeen mën a doon wala ñetteel wala takkoo mais xam nga lu tax

yeah man damaa mënagul a am ñaari jabar su bis moo ko mënee dinaa def man duma def lu ma mënul. kon ne parle pas la place des femmes soi-disant divorcées. amuñu fi ñu nekk genre benn genre disparate. waaw baax na rek nit ki daal moom boo nekkee jigéen nga am góor bul xool la mu am lu mu amul. Mhm. sëyal sëy bi te yàlla tax te nga xool nag dan nga sokkalee na xeet Muhammad rasulillah c'est quoi. on est musulman yokk lan. ah yokk xeetu rasulillah loo bëgg ñu wax. demee yéen yokk loolu nit ñi dañ koy wax ku tedd ki dafa bëgg ko yokk xeetam ci qualité mais pas ci quantité. ndoy dans la vie takki jabar yi dare di am doom di jat dajaj yonente bi waxul loolu kenn ah da leen la ngeen def loo leen mën écoute waaye bay di def loolu mënul takk ay jabar yi teg di am ay doom yi teg ñi nekk ay bi bëggul genre taalibe yooyu ndoy nañ bàyyi invité bi ah, dafa yàgg ci àdduna foo gisee un deux am na fa am de waaw voilà donc quand tu parles de quantité ak de qualité ça dépend ci circonstances yi mariage compromis la polygamie tamit compromis la mais en même temps contrainte la. mais lu mënta ñàkk day am. est-ce que toi tu décides de ton destin tu peux pas. Mm-hmm. yow defaloo dara sa bopp looy def dañ la koo def loo am déet. Mm-hmm. kon nag julli bu demee ba sës rek day gestu boroomam. Mm-hmm. macha allah waaye def loo mën jërëjëf ndoy ndoy ndoy ndoy non non def loo mën ay ca Mariama dinañ ñëwaat ci yow alors damay jox euh, euh, sëñ Ngañ sëñ Ngañ sëñ Ngañ nag dafa mel dafa daas di fanaanal non na daas ñaari soxna la ah! yor déglu rek ay ca xam nga xam nga loo xam ne du yàqu. Hmm. jot nga yàq ci say nelaw lu dul yàqu. bu <laughs> mu yàq say nelaw nelaw ba doyal rek boo yeewoo nga def lu dul yàqu. loolu la parce que man fi may com commencé sama wax. Hmm. peut-être ndooy laal na ko am na ñu ko jot a laal. bisimilah. mooy dafa am koo xam ne bu àddoo kenn amatul lu muy wax. Hmm. dafa am koo xam ne boo xasee ba wax kenn amatul lu muy wax. kii wax kan la sunu borom moo wax. moo ni may naa góor ñi. ñu jël ci jigéen ñi ñeent mais dama lay jox benn exemple yaa awa yàlla bu bindoon ñaar fukki góor bind fukki jigéen ni góor ñu ne takk leen ñeenti jabar est ce que loolu dina mën a nekk aayo ba yemul foofu nag non benn wax benn wax bu mu ko waxee wax bi ci boppam da nga cee war a déggee leneen lu la waxul loolu yaa koy xam lees waxul xamal lees waxul yaa may dégg c'est parce que jigéen ñi xëy na ñoo ëpp góor ñi góor ñi kenn ku ne mën a takk ñeenti jabar lim dooy wax am na ci solo mooy takk ñeenti jabar te fekk nga mën leen a yor mhm. na aay bi daanu rek dafa am mën a yor parce que tamit na nañu xam ni yàlla dafa bind nit ci bindin boo xamante ni moom yàlla moom rek moo ko maîtriser am na góor guy takk ñeenti jabar mhm. sa parce que poosam moo ko man mais doole mënu ko moom mhm. dooley poos moom man na ko yan façon yi doole moo am non doole ndigg may mais leen ma ñu may ma ñu ah, ñaari doole am am na yaawa Ah. góor noo attends non yooy foog ñu wax ko. Eh, parce que tamit noo débat la. Euh, ndooy mbay ma ñëw. yëfi nit ngay wax de waxam. dama c'est important. xam nga lu tax mu wax loolu. nañ leen nañ ko déglu. am na góor bu yàlla bind mu am xaalis mën a takk ñeenti jabar kenn ku mu jëndal ko oto dugal ko ci kër lu mu soxla mu jox ko ko. Mm-hmm. xëy na bëgg a noot bakkanam ci diggantee ak boromam bëggul fo. Mm-hmm. te boo génnee am teraa nga ci dëkk bii di Sénégal am mënal sa bopp lépp boo génnee boo ko waxee boo ko waxul xale jigéen topp la boo bëggee ñoŋal sa bopp rabal sa bopp nga takk ñeenti jabaar pour ñu may la jàmm mm. système day am loolu nit ki moo koy def pour diggantee ma borom pour rawale boppam loolu beneen kaala mm. am na góor boo xam ni mënul xëy joxe dépense mm-hmm. mais foog mu takk ñeenti jabaar mm-hmm. parce que mu tax moom it kooku contraire bi la su fekkee ni buggul foofu te yàlla bindee ko deretam parce que yàlla dafa bind góor ñu mel noonu bind jigéen ñu mel am na góor ñu dul dooleel jigéen mm. bu fe en ah, kay kuré la non attends am na yàlla bind du mm-hmm. que aw yaa ngi may bu baax góor gi yàlla bind mu am ci jigéen doyu ko mm-hmm. bu fekkee amul dépense moom ah. damay joxe benn cas damay joxe benn cas mm-hmm. bu fekkee ni góor gi moom dépense am doyul te xam ni benn jigéen doyu ko te ni ko yàlla bindee te bugguta mooy yàlla est-ce que kooku du takk ñeenti jabar moom it ah fu koy dugal ah fan la koy dugal attends ndooy <laughs> dafa nank non dafa nank ma ñëw non da ngay dem mais su fekkee sa kër papa nga nekk yor fa pantre yor fa sab aawo waaw nga bëgg a takk keneen foo koy dugal du demee noonu na ah, du demee noonu parce que tey jii am na jigéen ñoo xam ne ñoom seen bopp am nañ seen kër waaw yàlla jox na leen teraanga mën nañ seen bopp mm-hmm. Mm-hmm. tey parce que fi ñu tollu nii ci jamono mm-hmm. nekkul góor rek mooy takk jigéen tey dañoo toll ci jamono joo xam ne jigéen dafay gis góor parce que adduna bi moo yàqu jigéen ñi dañuy takk góor dooy dooy yàlla nañ ci yàlla musal adduna bi non may ma adduna bi dafa yàqu góor gu ñuy takk yàlla nañ ci yàlla musal waaw d'accord mais dama la quoi ay jingal la <laughs> kànkatar bi passé neexoon na trop ay gi ay jingal la doxal waaw xam nga adduna dafa yaatu mhm. mais nit ñi ni leen yàlla bindee wuute nit ñi ni ñuy xalaatee wuute mhm. nit ñi ni ñuy bëggee wuute am na jigéen boo xamante ni xaarul góor gu am xaalis. Mm-hmm. dafay xool góor gu am qualité. Mm-hmm. góor gu am personnalité. góor gu am yërmande. Mm-hmm. góor goo xam ne soo nekkee ak moom doo am lu la metti loolu du du dépendre ci ay wàllu lu nit ki am ak lu mu ñàkk. jigéen boobu tey mën na yàlla mën na ko dimbali mu mën boppam. muy xool ma xam ban góor lay àndal xaaru ci yow dara ku mu àndal jaamu yàlla. bukkul am na jigéen boo xam ne ni ma nga ay milliards la mu am doy ma ngay xool ban góor la mën a àndal pour man koo ngàdd pour dolli ay milliards am. bokkuñu ñi ñuy xalaate. dëgg la bokkuñu ñuy gisee yàlla moo bind doomu aadama ci bindin boo xam ni moom kese moo ko maîtriser mais dama ni maanaam ki am ñeenti jabar. te fekk ni dépense am motul. Mm. est-ce que dañoo war a jug rek song ko ni ko yow munoo ko. Mm-hmm. parce que am na leneen loo xam ni kenn xamu ko moom rek moo ko xam. waaw waaw mais sëñ Ngagne on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche aussi je veux dire tey waxtaan. waaw euh, boo bu dee yow xëy na les conditions ne sont pas réunies pour nga am ñaari jabar. Mm. déjà kenn ki nga yor rek problème la. Mm. nga bëgg ci ñëw teg keneen mais est-ce que aussi yow di nga sonal sa bopp sonal sa kële sonal ki nga ki nga mujjee takk. donc euh, problème yi day gën a bëri. xam nga loolu man dama ko d'accord mais man damay wax tamit ci wàllu. cest à bu ñu condamné nit ki nga xamante ni dañ koo gis mu yor ñeenti jabar de kalang kalang parce que am na ñoo xamante ni yaa mooy yàlla dee moo leen ko a ñoom lu ñu mën a dund ci ay jafe-jafe to mooy ñu yàlla baax na il faut ñu xam loolu de waaw d'accord lu ñu mën a dund am na góor goo xamante nii moom benn jabar moom yor sax lijjantu ko am na 40 gel fu ko neex la yen ah, fu ko neex mu yen fu ko neex mu faral eh, eh. dund dundam kooku yoonam néew ci mhm. mais bu fekkee ne problème bi ki koy dund rek moo ko xam ki koy dund rek moo ko mën a expliquer yow boo nekkee ci suuf bi bëgg a la problème problème day am donc euh, yow pour nga mën a ko juger il faut nga nekk ci place am ah? nga nekk ci place am pour a xam li muy dund man par exemple li ndooy wax sànq man sama sama kër papa man man du sama kër mhm. man gëw ma sama kër papa mhm. sama kër laa gëm sama papa dafa liggéey am xaalis ut këram ñu dëkk fa ñun juddoo fa man boo ma amee as tuut damaa uti terrain tabax ko dem dëkki sama kër est-ce dégg tey ji su fekkoon ni sama biir kër papa laa dëkk am fa benn appartement wala benn néeg du ma dem takk beneen jabar Ah. takk naa beneen jabar indiwuma ko sama kër dama ko utal appartement du ma boole ñaari jekk ci benn kër man man loolu man loolu man man du ma ah, non non du sama bopp attanu ko man xam nga sama bopp bu tuuti bi lu ne attan na ko dañ lay dof la mais dama ni la man du ma boole ñaari jigéen ci benn kër jërëjëf mm-hmm. man damaa bëgg aaw nekk këram ñaareel ah, nekk këram may jóge fii di dem fii di jóge fii muy jaa di li laa mais lu tax doo boole ñaari ñaari jéggi ci kër gi lu tax doo boole ñaari jéggi ci xam nga dafa am loo xamante nii ñun dañ koy dund ñun Sénégalais mm-hmm. kii laal na ko sànq man pas ay affaire de liggéey parce que gis nga affaire de liggéey ci ay wàllu wujje doomu jàmbur bu juddoo xamoo nu mu juddoo xamoo ndeyam xamoo baay am na nit ñoo xam ne sàngoo wuñ saafara ñu téere takk ñu gàllaaj am na nit ñoo xam ne rawxaan bi leen yàlla booleel mm-hmm. day am doole boo boo ko defee dara bu tuddee gindi gis ko jaxarataan comme télé wallaahi yamu ci soo ko defee dara loo ko def sa kaw la jëm dëgg la yow maanaam yow miy def dina ma ko ñëw coono boobu mooy continuer loolu def mu këpp sa kaw te yooyu nit ñi am na ñu koy xam am na ñu ko dul xam c'est-à-dire bu ñëpp gëmoon yàlla kenn ku ne xam ne bala ngaa dugg bàmmee li yàlla bindi muy sa war sa nga ko lekk ñëpp noppali ko mais xëy na loolu moom moo jafe su ko defee nag man pour daw affaire wujje pour daw affaire wujje doomu kii sol na li sama doom da ko war a sax mhm. tey lii la sañ pour daw xam nga tey bu ñaar ni toogee kenn ku la gisul moromam kenn ku ne ci looy sa bopp ci sa bopp jàmm la jërëjëf ayca euh, euh, sëñ Gagne wax ji am na solo waaw d'accord na waaw ah, d'accord day tàng ci kanam nag mais damay joxe damay joxe damay joxe sama sama la bippee dala bippee après di nga wuyu dama bippee waaw ci ki dégg nga li nga xam ne mooy thème bi tey polygamie monogamie alors euh, yow nan nga gisee li nga xamante ne mooy tu es pour ou contre tu pour ou contre hmm. Ah, je pour étant donné que jullit laa ànd naa si mhm. mais ci ku ko mën man su may wax polygamie damay wax polygamie et développement parce que dëkk il faut que ñu wax liy avancé dëkk bi aussi boole kook polygamie bismillah parce que polygamie aussi soo xoolee dëkk yi gën a sonn ci àddina polygamie ci la bokk. dëgg rek te dañu bëgg a avancer. Mhm. nit da ngay xam sa bopp. Mhm. ñun dañu xamul suñu bopp. Mhm. dañuy topp suñu bakken tardeel suñu dëkk. te mën a jooytu mën na ñaan Afrique ñoo ëpp ay doom fi te nanguwuñu liggéey. dëgg la bala ngaa takk jabar da koy mën. Mm. fii ñaata nit ñoo fi am ñaari jabar mënuñu ko. merci. di jur ay doom rek di tegale ay doom. merci mm. beaucoup mais pour quelle raison. Hmm? Mm-hmm. xale yi laajuñu pour nga jurlee jur leen. Mm-hmm. koo fi wax mu naan damay yokk xeetu yonant bi ban xeet nga yokk sa bànneex rek moo la nga topp. Mm. <laughs> merci ki la gën a pauvre moo la gën a bëgg jigéen. dëgg di am ay doom di tegale di lii. dama bëgg ñu bàyyi waxu yàlla chaque jour gémmiñ bu juddu yàlla def ci lu mu yàlla waxul loolu Dieu n'a pas dit def leen tay doom gémmiñ bu juddu ma def ñaata gémmiñ ñoo nekk ci at ci Afrique bi suufa ciy dugg mais arrêtez. bari na de. du ngeen taal télé di seetaan ñaata gémmiñ ñoo nekk ci kaw suuf suuf moo ci ci suufa ciy dugg du lekk. du lekk mais y a des gens qui comme sax ak ngelaw. Hmm? après bu ñu jegee jël gaal yi dem France fa fa nga xam ne ñooñu dañuy ubbi seen xel calculer ni yàlla nekkul ci kaw suuf si di dimbali kenn kenn ku nekk li ngay dund yaa ko teg sa bopp. encore une fois. soo ko munulee takk ñaareel ñetteel yow yaay souffrir souffrir say doom. te condition yu ñu nekk bu ëllëgee di ko layoo bu la yàlla nee nan nga yaree sa doom loo koy wax ba ngay takk xalaatoo. di tiire def lu la neex rek di dajale mais arrêtez il faut que ñuy wax ci loo xam ne mooy développer suñu dëkk yi Afrique fii mhm. doom yu bari yi dañ ko war a wàññi takk jabar joo mënul bu ko def mhm. mais pourquoi après waan toppaat ci tubaab yi mhm. ñu ñuy gën a yabaat dafa matérialiste li nga wax ni bu doon wax mu ne waaye dañuy da ngay tase ñoom Europe ñuy yelwaan tubaab yi naan waaye j'ai trois femmes j'ai quinze gosses yow ki lay dimbali moom benn jabaram benn doom di calculer. Mhm. man Modou Gueye maa ngi nii mun naa am ñaari jabar mun naa am ñetti jabar mais du ma ko def parce que dama bëgg sama dund gu neex. Ah, maanaam bu doon jigéen moo wax lii nga wax léegi nii ñun dafa matérialiste. dund gu tranquille. yaa may dégg est-ce ñun tey buñ ko waxoon dañ naan da ngaa moo tax nga wax dossier góor gu amul xaalis sànq dafa am foo duut sànq ma bëgg la faa defal say neexul sa yaata neex. doy baan bàyyil buñ nee nii nga dajale. lan mooy sa yaat déglu ma rek. lan mooy sa yaat lan mooy sa ndoy baan yow da nga amul amoo loo takkee am nga mari baan kese yamal foofu mais bul bu bu ñu taxé de comme ñun ñaareel la ñu a nekk mais man position boobu moo ma neex am naa droit ne bëgguma nekk aawo man man personnellement nekkuma aawo man mhm. ku ma takki da ngay soro sa bopp rek bul dugg sax si aawo nag mhm. ku am sa aawo ba pare tegee ko nee te ñëw <laughs> man ñaareel wala ñetteel wala ñeenteel laa bëgg mhm. bëgguma góor gu goo xam ne chaque jour ma lay gis looy bëgg deux jours nga dem suba boo ñëwee nga fekk fi tapis rouge bu subaa nga ñëw fekk fi leneen man dama bëgg a wane leneen yi ñu yor dafa bari ah, euh, mariage ah. ou polygamie nga bëgg ndax moom laa euh, fois aussi da nga bëgg nekk sa bopp say activité waay yow nga mën a di di nooyi daal yaaw sa nekk sa boo ko bëggee defar xam nga nooy def chaque jour ngay gis sa jëkkër xam nga léeg-léeg nga ñu génnee ay dara ñun ay jigéen lañu ci loolu la ñuy dox fer yi am son yi dañ koy génnee di génnee musique bi di génnee yu ne di génnee lu ne noonu il faut sa jëkkër dem tuuti ñëwaat am na ñoo xam dañuy dem ba ca kenn sax di woote. namu naa la est-ce que comprendre nga li a su ma la su ma la bëggee dégg yow a mel ni jommal sa jëkkër moo la neex ndax temps bi muy génn temps bi ma neex muy toog néew ci fekk ma defaat leneen man man bomb yooyu laa bëgg man di ko utiliser eh, lu neex ne xeetu ñambaxtaan yooyu xam-xamu jinne ah. yow xam-xamu jinne fexeel ba am ko comme yow da yow da ngaa pare pour jommal man ba man loolu laa pare ku nekk da ngay mat sa jëkkër seytaane yow loolu dinañ ci ñëwaat li muy laal na benn point boo xam ni sànq man dama ci am xalaat uh-huh, bismillah ah oui avant que ma jox Ndoye parce que nit nit waru lekk suuf pourquoi doomu aadama di lekk suuf nit su lekkee suuf rek nit moo ko lekk loo suuf mhm. waaw parce que tey jii boo ñoo ngi fan ñoo ngi almadi ñaata milliardaire ñoo dëkk almadi ay cent milliards trois cent milliards quatre cent milliards nga denc ko sa compte yow sa jabar sa ay doom sa milliards yi munoo koo lekk yàlla moo la ko may ki nga xamante ni nit la comme yow am xel nga am xel mu am jom di liggéey day dem fii liggéey ba journée du am 3000 ñàkkul jom day teel a yow liggéey yàlla moo ko may wërsëg mhm. yow defaloo yàlla dara mhm. am na ni mi demee da ngaa tëdd di nelaw dal ci ay milliards mais yow amoo xelu yow xalaat sa borom ci xerañam lu tax mu xañ kii mu may la nga war na tibb ci sa alal dimbali jaamu yàlla yi mhm. ngay lekk di naan boo deselee def ci lu la neex xalaatoo ni am na ku nekk ci sa wet amul lu mu lekk su fekkoon ni la nekk seen compte ya gëm nañ ni yàllaa leen ko jox te yàlla mi jox du jeexal ñu tibb ci seen xaalis di dimbali nit ñi kon du demee nii attends parce que ñu ay jullit lañu mhm. ñoom ak ñu dul jullit bokku ñu ñuy jundee mhm. yàlla nee na lama leen jox jël leen ci ngeen dimba gis nga dimbalante bu amul suñu biir barki Seydina Mohamed feebar yi ak yenn situation yi ak yenn yi am du am mhm. mais nit ku lekk ba suur lekk yàpp nit nekk ci sa wet amul lu mu lekk li jëntu woo ko mhm. alors lan mooy xew yàlla da lay bàyyi sa milliard teg la feebar boo xam ne milliard du ko faj dëgg la voilà jërëjëf sëñ Gagne euh, Modou nga ne dina bëgg je ne suis pas d'accord ci li mu wax euh, bon on est en train de sortir du thème vraiment non non bon, non non bokkul bokkul ci thème bi mais. mais euh, laisse-moi finir waaye jox naa la droit de réplique mais bon vas-y. vas de polygamie. man Modou Gueye du ma dimbali ku yor ñetti jabar ak quinze doom. kookoo la war gën a yor sax. du ma la dimbali. d'accord su ma yoree sama milliard dëkk ko sama compte comme ni wax naa am cent milliards bu fekkee yow xale bu jigéen bu romb nga takk. ba pare dëkk ci baraak naan ma dimbali ma du la dimbali <laughs> mais pourquoi ma lay dimbali da nga mënul utiliser sa xel. balaa ngaa wut ay doom di tiire man da ma dàq tiire da ma gën a bëgg tiire. da moo tax ma yow yow ngay tiire rek. ba pare xam nga lu ñu war a bàyyi. waaw mais affaire tiire la kay. Moodu affaire tiire Moodu fooy dugal topp seen bànneex rek di tiire takk ay doom ba pare bëggu la dimbali. waaw d'accord léegi si tu as dix dans boo amee fukki doom ñetti jabar man may fayee ko 1 million ngay fayee ko 100000 francs da nga ma gën a bëgg lu neex pourquoi ma lay dimbali après. man romb naa foofu de non dama lay exemple moom point bu mu laal. d'accord dafa laal point bu am doole. dëgg la non Modou kii waxul pour yow da doon la doon wax nii dafa doon am cri de cœur la doon def. loolu la non dama ni dañu war a bàyyi nit ñi dañu war a dimbali ñii. waaw ah, loolu Modou kenn mënu koo bàyyi. xam nga lu tax parce que loolu suñu ko bàyyee. moo tax mooy bàyyi nan waxu ko yàlla dafa am lu mu mais léegi Modou mën naa la yàlla benn question. mais ah, gis nga benn jaamu yàlla buy dox ci kaw suuf te soxlu ko ko dimbali ci lépp nag. te soxla koo gis muy dox soxla koo dimbali. mais euh, arrêté xam nga la ñu war a bàyyi. non man loolu du ko bàyyi de man sama wax ak yàlla mooy ànd mënu ma koo bàyyi dafa la defal ndànk moo wax la waaw waxal bu doon lool rek kon tey kenn du am dara parce que dama la bëggoo xamal benn affaire yàlla si boppam moo ne loxo biy joxe moo gën bii nangu man du ma nangoo nekk loxo bi tàllal nag man soo bañee ku la jox da ngay jóg nga liggéey waaw non loolu laa d'accord mais on tra yow liggéey ba pare chaque fois. ñi am dañoo war a dimbali ñi am. mais loolu bu ñu ko defee dëkk bi du dem. mais nekk dañoo war a jóg liggéey. waaw moo yenn saa ku loo xam ne moo lu sut ëpp la ëpp la doole di la yalwaan. tam mm-hmm. nanguwul bale am 1000 francs. waaw bul ko jox kooku bul ko jox. mais dégg nga xam nga kan wax man. kooku tamit ak ki dem takk jetti jabar ñeenti jabar di def polygamie ah. d'accord boo ñëwee di ma saxu du ma la jox dërëm. parce que li ma li ma calculé ba man ba yem ci calculer ni bu ma amee ñaari jabar damay am problème naa yem ci benn yow sa yoon newu si ngay takk ñeent ak trente euh, gos Modou gën a pauvre Sénégal leer na li nga wax ku nekk campé nga ci sa position léegi ci dimbali ma dimbali war a bàyyi débat bi ci kanam moo leen di yéen ñaar ñu am benn jabar benn doom yow nga am ñeenti jabar 40 doom ba pare ne la dimbali waaw jërëjëf man leen laa bëggoon xam est-ce que dimbalante dafay nekk ci lu neex waa ji mu daf ko wala nit ki buy dimbali nit daf koy dimbali te yàlla tax c'est que yooyu dafa gis na ñun il faut ñu xam ne ñun ay sénégalais lañu. d' accord ku nekk nañu respecté AVM. waaw moom nee na kenn yow ci pour ñu dimbalaate ci man leen rek laa bëgg dugal. leen rek laa bëgg a dugal. Mhm. mooy ko ñu xam ni man waxuma nit bu yàcc yaacaar dafa am lu ma wax. Mhm. ay olof laa wala. dëgg la li nga wax na ñëpp dégg nañ ko. nit ki xëy yow bala mu xëy. Mhm. dafa am yooyu kaala dafa am. moo la dàq liggéey moo la gën li muy liggéey boo ko liggéey boo wàccee doo dugg te bu bu wàccee 3500 lay am yàlla moo dogal loolu. waaw ah, wërsëg la eh, waa chance la chance la waaw bu fekkee mu yem ci benn jabar. non waxuma waxi jabar polygami. mais loolu loolu na yem ci benn jabar xam naa ko de. lu ay liggéey thème bi polygami la. Moodu Moodu man man yemal ci benn jabar. en tant que artiste xam naa thème parce que damay traité ay thème. mais benn jabar nga yem Moodu mais mais benn jabar dañu ñoo wax waxtaan. waaw xam naa ne boo xëyee bu suba ba oh, ngoon. débat bi tourné wul entre yéen ñaar s'il vous plaît man ma xëy suba ba ngoon am 100000. Moodu yem ci benn jabar yow ñu am 3000 nga wuti ñeenti jabar merci mais du ma la dimbali. alors Ndoye yow euh, mooy. foog ñu bàyyi euh, dimbali dimbali ba kañ. <laughs> ah non waay sax ci yalwaan. Eh, kan laay continuer mais arrêtons waay dimbali di ba kañ. <laughs> il faut que nit ñi liggéey bàyyi leen dimbali dimbaliwuma kenn <laughs> demal. voilà donc Ndoye fi ma bëggoon ñëw ak yow mooy euh, gis nañ ni. na suñu yaay yi nañ doon sëyee démb. ak tey gaa mënul sax nekk benn mais mhm. juste dafa may euh, permettre pour ma mën a ñëw indi sama question mhm. ni ñu doon sëyee démb ak ni ñuy sëyee tey am na différence mhm. léegi da ngay gis sax nouvelle génération bi ñoom dañu penché wu plus pour polygamie xëy na pour ñu mën a compéndoo lu mu doon wax sànq. mën a ah. am seen liberté. Mm. mën a euh, vaguer à leurs occupations mm. bu ñu mënee sax am yenn euh, dil yi ñu dem defi ko xam nga mm. euh, prendre soin de leur corps dem defaru moo gën ki nga xamante ne chaque jour H24 yéen a ngi nekk ci biir kër gi ñëw boo xoolee tendance bi léegi. Mm-hmm. même amaana sax ñu doon bañ polygamie sax léegi ñu ngi koy commencé di nangu. Mm-hmm. mooy les femmes intellectuelles entre guillemets. Mm-hmm. donc ñuy commencé di di di nangu mariage. ñooñu dañoo jàng ba ña leen waroon a takk jabar ña leen waroon a takk am nañ jabar dama lay labat ñu bokk classe man ak yow nekkandoo université ma ak yow ma lay labat bëgg laa takk nga ne da ngay jàng ma bàyyi la fa dem takki jabar yow nga continuer di jàng man am naa jabar ba am doom ju a ah, xam ne mën na laa takk kooku tey jii soo demee yow su soo demee ba war a am jëkkër doo di nga am jëkkër mais doo am la la gënal ou bien ñaaral ngay doon wala ñetteel wala ñeenteel parce que ña waroon a takk aaw ah, am nañ jabar waaw noonu lay demee dañoo topp njàng mi ba am na ñoo xam ne suñuy am doom seen ñoom dinañ magee seen doom presque plus de quarante ans wala plus de trente mais léegi da gis xale boo xam ne dafay am moog doomam moo ñooy maase mm. kooku mooy jigéen ñi nga xam dañoo teel a sëy mais imagineel nga jàng jaar université génn am liggéey ba ba am trente cinq ans wala nga am quarante di doog am doom soo amee doom sa doom li nga koy magee dafay bari bari goo xam dafay day waar loolu mooy ña la waroon a takk yow am nañ jabar bu yàgg donc yow ñaareel nga mën a doon ñu ci ëpp. benn bi mooy est-ce que du loolu aussi boo gisee peut-être dañu bëgg une vie stable ñu mën seen bopp ba pare xëy na balaa ñuy dugg ci sëy ndax day gën a neexal sëy bi rek li muy mujjee li na ko njëkkee. maanaam mu sëy en même temps di. am na ñoo xam ne tey jii dañuy toog topp liggéey bi topp xaalis bi topp liggéey bi topp xaalis bi ba màgget lu mu yàgg-yàgg da ngay retraité toog di gérer sa jëkkër loolu ngay mujjee tey jii àdduna bi du dem ba jigéen faatu ñu teg ko ci kanamu jàkka ji ji ko jullee di woo directeur am wala euh, chinois ba ko doon jaay marchandise fële ci Chine wala que ne turc duñ leen woo de sa jëkkër la ji woo ni la loo xam ci sa jabar ji mm-hmm. loolu nga xam ne moom nga war a mujjee dee ko njëkkee ut jëkkër waaw ut jëkkër ju baax nga teel a rangé wu nga mu ngeen utante nga teel a rangé wu nekk ci leneen te réew yàqalu la dara ci sa jàng yàqalu loolu dara ci sa liggéey nga jéem ut jëkkër joo xam ne dina nangu li liggéey dina nangu li ngay jàng waaw mais loolu nag d'habitude moom mooy nekk problème d'habitude boo boo boo boo takkee jigéen bi nga fekk ko ci dara muy évoluer ci loolu mm-hmm. nga takk ko bëgg ko gaare def ko bëgg ko def femme au foyer am na mm-hmm. góor yu mel noonu sama jabar du def dara oh, non waaw loolu loolu moom ah, loolu moom loolu d'accord ci àndoo ci non ça dépend man moom leen am na man moom mën naa laa may lépp ba mu des midi añu añu midi añu midi midi taaj añ mm. a taaj añ moom sama jabar dina ko def moom ku ma la mënti takk diplôme yoo mënti am ci àdduna moom su heure añ jotee di nga ma taajal añ ak na koy taajee mm-hmm. façon boobu man loolu laa fekk sama baay di ko def mm. man lool laay def loolu laay jàngal samay doom ku nanguwul nag ma bañ soo nanguwul lool nag ca takk gan yi ko def fekk nga dem nekk sa liggéey ndékki la garaawul mais añ bi moom lu ma respecté la parce que dama daa dama lu ma dama ko doon lu muy nii du ma lekk mayonnaise te di ñedd du ma lekk nen tey ñedd mayonnaise ku nekk ak li nga bëgg waaye ma ne kon xanaa sa moom kaaru ngoon lay liggéey dana liggéey nga ne añ rek dama ni la man mën naa muñ lu nekk mën naa muñ lu nekk mais añ moom dina la ko tegal ma ne ko kaaru ngoon lay jël yow jaagar jaagar yi midi taaj añ loolu affaire la <laughs> mais da sa jabar jël kaaru ngoon laa wax kay man maay xool yaa ngi ñett may nees bi man maay xool kaar bu ma neex ma jël ko man kaar ah. bi ma neex mooy kaaru añ aña ma neex sa jabar na jël ah, liggéey ngoon déedéet non non non salon wala tey d'accord encore beneen bi war na laa mën a fekk sa kër nga taaj añ te gis nga gis nga gis nga man Modou ni man moom laa àndal à deux cent pour cent mënoo yor nekk nekk ci kër ah luy ab néeg nekk fa ak sa jabar. am douze doom. nga naan da ngay takk ñaareel te tey jii soo xëyee pour nga jox leen lu ñu ndekkee problème la. Mhm. même su fekkee yaa ngi liggéey am na ñoo xam ñi ngi liggéey di fayee ko weer wu dee de. di liggéey bu baax am di fayee ko weer wu dee plus de deux cent mille wala trois cent mille dëkk bu métti bi dund gi yokku na location bi yokk loolu lépp nga bëgg cee dundal sa sa sa sa jabar say doom dund ci yow sa bopp déplacé wu fay ci location nga bëgg a takk beneen jabar. moo tax comme ni ñaan gi day bari trian gi bari cas sociaux yi ah nekk ci xam nga loolu damay bari ñaata jigéen ñooy bàyyi seen jëkkër dem ci seen caa ci seen frère yi naan la jàppale ma lu ma ceeb bu ma yóbbu dund gu ma yóbbu ana sa jëkkër ma nga ci ñaareel ba moom de temps yi dafa takk jabar am na ñoo xam ne mat laa bu ñu tëdd amuñu ko d'accord ah am na ko ni ma woon dama dama damay damay ngénte damay damay takk ñaareel damaa bëggoon nga jàppale ma ci mat la man ko wàcc na la. wallaay wàcc ma lan wàcc na man ko takk jabar wàcc na la ginnaaw amoo mat laa boo ko tëral. bàyyoo ko moo la te xoolal at mu jot ñu ngénte dañu yor ñetti jabar at mu jot benn jabar am doom mais loolu looy doo am. su yàggee ñu amandoo sax nag waaw di nga ñaani. c'est vrai loo denc balaa at mi dootuñu ngénte doo dañuy may ah, d'accord léegi benn bëgg ko. Mm. c'est loolu laa fi waxoon ah. benn jour ñu ne dañoo matérialiste bu dee ñun jigéen ñoo wax ñoom lii ñu wax tey boo nee du ma sëy parce que loolu boo ne munoo ko parce que buñ ne ñun tam duñ sëy góor goo xam ne amoo dërëm yoroo dërëm ñu ne jigéen ñi dañoo matérialiste mhm. li ngeen fi wax nii mooy loolu ku ko mën na ko def ci côté yëpp nag mhm. physiquement mentalement pochement lépp ma mhm. na lépp pare nga doog a takk ay jabar loolu bañuñu ko comprendre nga lu ma bëgg wax ku amul dara yow sa tu yoroo almet yoroo cigarette sa tubay fëkk sa ginnaaw foo jëlee xaalis mais moo gën ndoxaan gi tam nga takk indi ko moo gën ngay mbal Mhm. yor sa aaw ba pare di toog ful ful <laughs> foo romb ñu ne jaar na fii waa jël ci xale yi ni waaw kay di jël ci ah, xale yi waaw ah, ah, soo bëggee takk ñaar jël ci xale alors man Alima ma fi ma fi ma fi ma bëggoon ñëw ak moom Pendo <laughs> wàcc ñu <laughs> alors <laughs> Alima fi mu ni ma waxee ni eh, ndooy doxaan gi muy max la war a bàyyi ku dëgg takk ñaareel doo ko doxaan waaye ma ne ndoxaan bu tar gi condition doxaan bi doxaan jubal da nga fay joxe da nga fay joxe xaalis da nga fay la may labat bi ça dépend rek labat bi mais soo labatee li ngay seet gisoo ko nag ah waaye di ah, da ngay dugg fenn bëgg faa takk jabar sax yaay ji di la mbara foo boo fa. tànkee di la mbaraan. yaa boo njëkk a nga fekk fa cuuraay bu ñu taal te jëndoo ko chargeur ba courant bi bu jeexee taal fayoo ko kon booy doxaan yaa ngi fay joxe dara kon nga takk ko. nga xam ne yaa ko bokk rek dem feneen. dara <laughs> jërëjëf alors damay ñëw ci Alima. Ah. Alima comme ni ma waxee léegi Ndoye sànq expliqué naa ko ma ne ko léegi peut-être euh, am na yenn euh, jigéen yoo xamante ne dañ doon bañ euh, polygamie léegi boo xoolee ñu ngi koy nangu waaye tamit de l'autre côté. Ah. am na ay jigéen yoo xam ne dañoo mën seen bopp tey mën seen bopp mooy maanaam Euh, gis góor ñàkk gis góor dem ci comprends am nañ financièrement parlant taxaw nañu mm. donc genre yooyu noonu euh, d'habitude du ñuy nangu wujjee ku leen takkal ñaareel dañ koy bañ d'habitude maanaam ñoom aawa lañ déjà wala amaguñu jëkkër non ah, ah non ah, évidemment aawa lañu ah ok aawa lañ déjà waaw aawa lañ déjà financièrement dañoo mën seen bopp mhm. xëy na seen jëkkër ñu defal leen ñàkk leen defal yëpp ñoom ñi ngi seen bopp ñi ngi gérer seen bopp donc d'habitude genre jigéen ñooñu. dañ ko supporté wul. du ñu supporté am mujj. dañ ko war a supporté nag parce que yëf yi du financièrement kese. Pendo Pendo Pendo Pendo. du financièrement kese na wax lan kese <laughs> ah waaw. non li ma la bëgg wax ni par exemple tey. peut-être yenn charge ci kër gi yéen a koy bokk débat bi dañ koo woddu trop trop débat bi dañ koo woddu foog ñu koy woddu te nga bàyyi pendo mi ak non débat bi foog ñu koy woddu loolooy problème bi su doon débat bi wodduñu ko trop liñ bëgg wax yëpp dinañ ko wax mën nga wax mën nga wax ak mais avec la manière mën nga wax dinañ comprendre li ngay wax ok maanaam ah. ñi nga xam ñi ngay wax rek dañoo dañoo stable financièrement yor seen lépp. amaana li ñuy def ci kër gi xëy na ñoom ñaar ñu bàyyi seetaanu jëkkër ji ci kër gi daal vraiment mu ngi koy jàppale mu ngi ñu ngi ñu ngi cheminer noo ensemble di dem euh, di kii ba xëy xëy rek mu gis ñu indil ko ñaareel. Ah, waaw te fekk ni amaana. lu bëri lu du ma ne sax ñoom ñaan ñooy mais lu lu dee ci kër gi amaana ñoom ñoo ko pare ma dee waay am na lu manqué waay ngaan dee waaw kay lu dee lan addu ju ngoo foofu la xam nga luy problème bi gis nga ñoo ñu ngay wax noonu financièrement <laughs> dañoo stable am ñu lépp maanaam lépp lu dee ci kër gi ñoo ak borom kër gi dañuy gaaw a naagu dañuy gaaw a bew mooy jigéen ñi nga xamante ne li leen war à 100 pour cent duñ ko def parce que pour ñoom ñu ngi liggéey am nañu xaalis tey bu jëkk ji jëndee benn partie table bi beneen partie table bi ñoom ñoo ko jënd donc maanaam jonkonuñu ci kër gi dañoo toog te xamoo ne yow ki jonkoon sax moo la tane parce que li liy indi loolu tey bu dee dem nga yow ba xam ne yow macha allah sa lépp ni nickel yaa ngi def ci biir kër yaa ngi def dafa am partie boo xam ne da nga koy mi da koy négliger mm. te partie boobu moo ëpp solo <laughs> parti bi nga xam ne moom ngay négliger mooy parti bi nga xam ne moo gën a ëpp solo ci ku góor. seytaane góor dafa bëgg seytaanem. xajam bañ nañ ba ñu ne takkal takk leen seeni seytaane ngir ngir ah. bañ a jaaloo. jigéen buy sëy ci kër. ngay seytaane mën nga ci am ñeent. ah maa la wax loolu. nga am ñeent seytaane góor ñaar rek ko mën a jommal. am na rab am na jinne am na njuuma am na seytaane. Hmm. xanaa leer na. na kër ga xajam te du suuf. dégg mais bul nekk ci biir kii dama dugg ci li tàkk dégg li ma la wax damaa takku ba dëgër nii. Eh, nekk benn ci benn kër noonu ngay waye bi ngeen may bay may yeggale sama soxla ñëwal Ali ñëwal damay pëtëxlu rek sama xarit nga pëtëxlu bi laa lay tere tey <laughs> eh, da nga gis yiw de damay pëtëxlu <laughs> eh plateau bi neex na de nga ne kan mooy rab yow non plateau bi am na rab maa la wax loolu am na jinne am na njuum am na seytaane ok Alima daanelal ma jox Mariama yaa ngi may dégg mm. la plupart jigéen ñooñu li leen war à 100 pour cent seen kër duñ ko def mm-hmm. parce que dañ naan maanaam toog nañ daal lépp mat na sa sa jëkkër bu defee baax na deful yow yaa ngi def xam nga dañuy naagu li leen war seen diggante seen borom kër duñ ko def parce que déjà ñoom ils se disent que elles se disent que ñoom ñu ngi def li leen war quoi ci kër gi mm-hmm. tey amul lenn loo ko ëppale ci biir kër gi mais ah dans tous les sens duñ ko def maa la wax jigéen ñooñu ngay wax noonu mm. ñi nga xam ne dañuy def bii ci kër gi mm. duñ def beneen bi ci kër gi ni mu waree dee may dégg ah bàyyi ma waaye dee may dégg mais nag ay dañuy nekk ay jigéenu intellectuel yi liggéey di yor seen xaalis di xaw a napp waa ji di yóbbu fitam te fekk waa ji bëgg na koo xam ne da koy nabb nabee waa ji soxla na koo xam ne danaan ko ay def ko liir góor liir la day bëgg ku ko nax mais yow comme déjà yow nga ne sa poste diis na am nga sa jëkkër bu defee nga def bu deful nga def yu sew yoo xamante ne ay mbere mbese yoo xamante ni daal sa xol bi sax du la may def ko parce que déjà du question sa xol sax mais yow dans ta tête te dis que tout bien parce que yow yor nga sa xaalis yaa ngi def lu la neex yaa ngi kii di liggéey di xëy di wàcc di ma li ma nanguwul man ngay liggéey fii ñëpp ñu jigéen ñu bari ñu ngi liggéey mais noo liggéey liggéey liggéey noo liggéey liggéey war ngaa mën a am benn moment boo consacré sa borom kër ak sa jaboot ak sa kër noo liggéey liggéey noo sursar am na ñoo xamante ni duñ defal seen i jëkkër café te buñ demee bureau ba ñoo fay daq defal patron yi café am na ñoo xam ne duñ taajal seen jëkkër añ te buñ demee feneen ñoo fay dàq taaj añ mhm. am na ñoo xamante ni ta xooluñu sax lu seen jëkkër sol lijjantiwuñu ko xanaa noo xëy xëy noo yàkkamti yàkkamti balaa ngaa xëy war ngaa lijjanti sa jëkkër lu mu sol nga teg ko parfum <laughs> cuuraay ko tegal ko nag bul fàtte ne non mais attends dëgg rek jigéen euh, femme sénégalaise hmm. waaw dafa jóge dañ waxante dëgg nag noonu taxaw rek ñëpp de <laughs> bu ñëpp yamee bu ñuy wax majorité bi moo tax ñuy wax booy pëtaxlu ma lay kurpeñ eh, pendo doo pëtaxlu doo pëtaxlu doo pëtaxlu doo pëtaxlu ci biir yaa may dégg doo pëtaxlu de booy pëtaxlu ma lay kurpeñ yaa ngi may dégg suñu jigéen nag non mais nangu naa am na si gis nga jonge jongantisme bi ngay wax nii gis nga suñu jigéen ñu jonge yi kaay ma wax la dara gis nga boo duggoontee kër bu ñu defar ba mu baax rafet jigéen bi am alal góor bi am alal nga dugg ci kër goo xam ne maanaam amuñu dara jeeg ba fay sëy moo gën a jonge jeeg bu yor ay jas neeram di ko seng-seng ak i pirxam di ko sol hmm? jeeg ba nekk ci kër gi nga xamante ne bu xëyee jëkkëram day taaba taaba moo gën a bëgg jëkkër moo gën a mën a fonk jëkkëram gis nga sëy base bi mooy mbëggeel mm. pas alal ak jongom ak taar ak mm, ñoom mm, seen gis nga boo bëggee sa jëkkër mu bëgg la da ngeen di dem ci circonstance yëpp mm-hmm. gis naa fi jigéen ñoo xam ne ñoo takkal seen i jëkkër ñaareel mm-hmm. am na fi mm-hmm. am na jigéen yoo xam ne ñoo toog ba benn moment gis na wax dëgg yàlla war na ñoo mën a takkal seen jëkkër jabar ñu takkal ko jabar lépp rek ci ci xel la ak ci xol waaye nag wax dëgg yàlla nga toog yow si kenn signalu la monogamie yow gisoo fenn fu ñu la signaler monogamie nga ne nit ki du takk ñaareel du takk ñetteel du takk ñeenteel pour lan. loolu dinaa ñëw ak Modou jërëjëf naa ñëw ci Modou ñi nga xamante ne dañoo signé euh, monogamie ba pare dem ba ci biir. dajeeg benn jinne bu mel ni. alima wala pendo wala mariyaama rek takk ko ci suuf fit ba dem. ci suuf lañ koy def ci takkum suuf. non am na sax ñoo xam ne dañuy def suuf am ñoo xam ne ñoom dañ nañ koy ne teel rek. Mhm. not bi tas dëgg la ne takk takk ci réew mi moo ëpp takk yi ci kaw. maa ngi ñëw dëgg la mooy éco ko foofu. éco ko damay ñëw ci Mariama. bi ma laaj euh, Alima. <laughs> non Ndoye bàyyil perturbé ak Pendo ñoom ñaar ñii dama cee xam yu bari rek ñoom. léegi surtout comédien li ma laaj ah. li ma ah. laaj Alima. moom laa lay mais contraire laa lay laaj. par exemple tey Alima ni ma ko laajee ma ne ko jigéen bu mën boppam mais aussi est-ce que tamit tey ki nga xamante ne xëy na loxoom jotul ginnaawam. jëkkëram takk na ko xëy na mii taaba taaba munul munul munul booram daal comme ni mu waree est-ce que tamit kooku tey c'est pas parce que munul booram rek euh, amul amul lu mu wax yorul dara que amul son mot à daal ci biir kër gi. waaw je vais rebondir sur le pour affaire Ndoye Bane. Mm. ak tuuti ci sama. xarit Modou en fait man damay ragal ne nit ñi daal lu ñu fàtt ci 2021 bi. Mm. bu ñu fàtte ñun yàgguñu ñun. suñu génération 80 bii je pense que yàgguñu ah. alors loolu il faut ñu fàttaliku démb sëy yi nekkoon Sénégal lan moo leen takkoon. wala. Hmm. sëy yu njëkk yi amoon na mbëggeel. amoon na kóllëre. amoon na teraanga amoon na respect amoon na diine bu dëgër. nga dem kër boo xam ne ay sàkket la. nit ko doon koo xamante ni kilifa la. bu ñu añee du ñu reer. sama tante wala sama maam gis benn xale bu baax bu yaru. mu ne ah Ndoye Bane mii kat nit ku baax la mm. nit ku xam ne bu ñu ko jox suñu doom on aura une bonne descendance maanaam euh, mucc bu rafet ñu ah, téye xale ba yar ko yar bu rafet mm. gàddu loxoom ba ci Ndoye Bane ne ko ah ñun kat dañ lay jébbal suñu doom fekk Ndoye Bane amoon na aawam bu baax ñaareel bu réglé mm-hmm. ñetteel bu toog ñu jël xale bu ndaw jox ko Ndoye baan Ndoye Bane xam teraanga xam lu baax xam valeur référentielle yi sénégalais yi xam mm-hmm. téye xale boobu mm-hmm. wala sa sëriñ jox la whatever léegi yee léegi yow Ndoye nga xam ne kii xale la aaw beeg ñaari ñett xam ne bi xale ñu yar xale ba du ci moom loo xamante ne bés baa ma ay doom dañuy barkeel sénégalais yi bu ñu fàttee barke dafa am ci réew mi mm-hmm. te sëy bu barkeel mooy dëkk bu dox gis nga ndimbal dëgg na ci fekk loxoy borom sama xale su ko xale ba nobul nag whatever waaw waaw ndoy ndoy nañu bàyyi raisonnement après je vais développer gis nga euh, kii li mu wax ci affaire ndimbal il faut pas que les sénégalais oublient que fii kenn mënul ku dimbalee fi am mm-hmm. ndax boo juddoo kenn sangu la <laughs> fëgguñu la nga jooy xarit mbaa di nga dund boo noppee liggéey tam noonu la lay delloo donc il faut qu'on revoie les bases et les valeurs référentielles du Sénégal léegi nag yu dem ba tubaab bi dugg colonisé ñu dugg modernité Afrique ok pauvre mais maintenant Afrique debout Afrique bien Afrique moderne femme intellectuelle di liggéey di xëy di gont di mm. jàppale seen jëkkër di muñ di sëy sëy bi mm-hmm. nga nekk jeeg boo xam ne dangaa pare yaama lan mooy femme intellectuelle non je pose une question intellectuel intellectuel c'est pas seulement ku jàngi école mm-hmm. parce que pour man école ci domaine bu ne mën nga ci nekk intellectuel pour nga mën a jaar sa àdduna pour am benn schéma mm-hmm. mais jàng dëgg-dëgg ca kër lay tàmbalee say wëy mais femme bi toog këram di sëy sëyal jëkkëram xëyul gontul duñ ko wooyu intellectuel ah. attends attends attends attends nuance fii kan la ñuy wax femme je parlerai de mon expérience personnelle mhm. am naa mag boo xam ne Zeyda la mhm. kooku arabe la jàng day jàngale alxuraan mhm. après voilà ndogal am l'autre femme intellectuelle lan laa ko wax man ko dëggalal sa bopp te xam ne li nga jàng lu jër a jàng la parce que parce que alxuraan bii nag outil la pour dund mais Zeyda boobu intellectuel la ca la mu ne. Mm-hmm. non whatever oh, loolu mot français la maanaam nasaraan yi waxee loolu maanaam ku jàng daal dem école mm-hmm. jàng mais Sénégal ñëpp a jàng. Mm-hmm. ndax fi ko xamul baax xam nga leneen. wala man damaa juum. léegi nag aaw boobu nag bu góor góorgóorloo. ba am ay moyen am dafa jëkkëram mënu wuti ñaareel. na def ndànk àddunaa mu solo. daal destin kenn bindul ko boppam. boo juddoo xamoo foo jëm dañ lay tette. kon Sénégalais yi nañu xam ne fii. bu sa jëkkër amee ñaari jabar c'est pas un drame mhm. ñetti jabar c'est pas un drame ñeenti jabar jigéen ñi am leen seen fulla seen fayda sëy seen sëy te xam ne jëkkër muy kilifa maa la wax loolu d'accord léegi ci question bi ma la wax bi nga xamante ne femme drame bi mu wax dama ko bëgg rek lan mooy drame bi soxna si xam nga lan la jigéen ñi lu leen man yéen laa faral ok man jigéen ñi laa àndal ñoom laa yërëm non non ah, c'est jigéenu Sénégal xam nga lu leen sonal yow tey mënoo tey jii Modou Gueye takk la mhm. sëy yow e pendant trente ans dugal la ci benn pantre mat laa ba nga ban la takkee woon wala laal ban la takkee woon ba léegi ca ngay tëdd mhm. ci trente ans su guddi jotee mhm. sa doom yi ci boppam ñu ngi si biir ruum bii di tëdd mhm. pour nga sékk ak sa jëkkër la nga xam ne moom ngeen war a séq sax da ngeen di bàyyi ba xale yi nelaw di dund difficilement ci néeg bi ngeen añee añe fa ngeen reere fa la doom yëpp di fanaan mais kooku war na am ñaari jabar mais loo xam ci ak ah, yow yow yow nga toog di muñ loolu tabaski doo rey tabaski doo rey mbaa xar difficilement la ko sa jëkkër di amee Mm-hmm. mbubb mu bees pour nga am ko problème la mm-hmm. léegi nag sa jëkkër boobu nga xam ne moo ngi dund difficulté yooyu mm-hmm. mooy dem naan day takki ñaareel di amaat yeneen i doom di la yokk ay problème eh loolu loolu mooy problème mu Sénégal je vais clairement loolu mooy drame bi ah, ah, jigéen ñi regarde pour man mariage bi instant bii nii dëgg la y a beaucoup de euh, xaalis euh, financement ci ci sëy parce que jamono jee ko laaj tamit parce que le monde est un peu dur wala c'est économique ñun ñëpp a sonn benn côté mais pourquoi nga bëgg jël yow sëy Ndoye Bane teg ko ci xaalis ak am am teguma ko ci xaalis sëy dafa war a neex léegi xaalis de dafa dafa ci finance yow nga ne yow nga am naa doom du loolu am naa pantere sama jëkkër amul dara neexul sëy bu ñu nekk ci pantere ak fanweeri doom loolu gën a barke léegi xaar xaar dañuy wax rek xanaa sëy dafa war a neex ba jéggi dayoo doy ah, ah, ma dafa nànk ci looy defal nank affaire ñun kenn ku ci nekk am nga kër dañu war a bàyyi jigéen ñi ñu wax naan bala nga doom ju baax da ngaa souffrir lool loolu dañ koy daxee jigéen dafa nànk sëy bi dafa war a neex sa jëkkër di di dem jàng école yu baax léegi ndoy dund dund bu neex loolu lañ wax léegi ndoy neex mooy lan léegi yow nga mettre leen ci ay conditions yoo xam ne ñu épargner di ko def lool ne te naan la du lool leen doy si yaayam rootewul kañ ay milliardaire la. Ah. waaw Lionel Messi yaayam rootu da nga xam histoire Lionel Messi yow. Ah. dama ne yaayam rootu xam histoire am ba mu dem ak histoire milliardaire yi tubaab yi ne fii ni seen yaay rootu soquñu. mais am na ay bandi am na ay vagabond ay bandi yu nekk milliardaire. am na yoo xam ne soo ko yoree jigéen da nga koy maltraité. man xam nga la violence xam a di leen nax. doy doy non Sénégal dañuy nax jigéen ñi rek. non non doy loolu dafa ma metti. doy ah. doy mais oui c'est ngañ demal doxalal. parce que kenn ku ci nekk fii. vaar laa bëgg ñu dem ko nag vaar <laughs> kakata damaa bëgg ñi koy seetaan nañ ma dimbali ba indil ma vaaru ndooy baan parce que ndooy tey ni nga waxee nga ñëw ci ñun waaw démb nag ñu xas ne da ngeen a war a root da ngeen a war a togg de gis nga ndooy <laughs> jërëjëf sëriñ nga ñëwal laa bëgg a wax c'est-à-dire waxtaan bi waxtaan bi dafa doy waar mm. parce que xam nga li tax waxtaan bi doy waar mm. kër goo dugg tey quatre-vingt-dix pour cent mm-hmm. ñu ngi dund lii mm-hmm. Mm-hmm. moo tax buñ ci duggee thème kenn ku ci nekk mooy li sama sœur wax sànq mhm. expérience bi nga am muy bu bu personnel mhm. loolu ngay mën a joxe mhm. mais kenn ku nekk am nga loo xam sax lu sa morom xamul mais bu ñu duggee ci kër yi kenn ku ne am nga papa am nga yaay mais am nga maam cest dire kii dafa laal ci point boo xamante nii dañ ci war a dellowaat suñu bopp yow da bëgg a dellu ne sa maam sëyee non non mais mais loolu foofu sax damay ñëw euh, euh, ngañ parce que yow tey xam nga depuis sànq yéen a ngi wax diine diine diine mais tey ni ngeen xamee ne comme ni ñuy wax suñu maam yeeg suñu yaay ni ñu doon ah. séy ak tey ni ñuy séy du benn donc bu ngeen indee diine damay indi diine euh, euh, euh, moment bi ñu nekk aada lañ gën a fësal mm. aada la ñu jiital ci yëf yi nañ waxante dëgg que diine bi sax booy xool aadaay dox nii ah, waaye bu leen arrangé rek ngeen ne diine mm-hmm. waaye aada bi moom moo dafa mel ni moo prendre le dessus de aada ba diine ñëwee diine ba mu ñëwee fi la fekk aada mm-hmm. mais lam fi fekk ci aada ci loo rafet da koo téye la rafetul mu dàq ko mm-hmm. est-ce ma yaa dégg bu baax. mais kii dafa am benn lu mu wax lu am solo te ñu war ci bàyyi xel. te loolu ay valeur la. ñu amoon ko bu njëkk te loolu warul yàqu bu fekkee sàmm nañ ko fii lay nekk du yàqu. man ñu may may soxna aw ma kër. attends kan moo may jabar sama aaw seex sekk ma ko may maa ngi moom ñooy ànd di théâtre hmm. lan la ma ko maye maa moom ñooy ànd di dem Europe fu ma dem maa moom ñooy ànd. ma nekk benn ñafekat ñun ñaar ñu àndi di guerre di utu lu ñu am mel ñaa ñaar lu ñu kenn un franc dañuy liggéey buubaa ngi nii di ma dégg ànd naa Youssou Ndour tourné 2004 ak 2005 di ñafe en tant que artiste Seex Sekk xool ma ma nekk rakam mu ni kii dafa am jom suñ ko mayee jabar mu yor ko boobu yoruma un franc mais loolu dafay am loolu la kii wax mhm. dooy baan yow bi ñu lay may sa jabar sa aw loo am dara ah you struggle su fekkoon ku amul dara mais mais non non non waaw waaw bi mais mais après est-ce que. li may wax day dafa wala saa ta doon le droit wala wala wala dafa nang doy xaaral ngay dem di naan da ngay jël deuxième femme. non xam nga jël deuxième femme. ñu boot la nga bëgg a boot c'est-à-dire kenn ku nekk yaawa kenn ku nekk foog ñu bàyyi ko yéen a ko wax sànq. kenn ku nekk foog ñu bàyyi ko mu dund li mu bëgg a dund. non attends sànq. ndooy baan am na lu wax loo xamante ni man d'accorduma ci sama jabar daf maa war a tagee añ midi pour lan ah, parce que loolu lañ doon defal sa papa ah dañuy delluwaat ci say njëkkee eh, non defal nañ da duglu ma rek ndooy da nga may ma ñëw non da may déglu xaaral ma ñëw sa jabar su fekkee am nga sa jabar waaw ngeen déggoo xam nga sëy waxtaan la mm-hmm. eh, eh, man ngaa bañ a sonal sa jabar mën na laa bañ a sonal mm-hmm. man sama yëpp man dama la benn daal rek ah, compromis la dama ne neex neex ya maam ya daan dund mm. nañ ko nañ ko jël mais yu naqar yee maam ya daan dund di rootee ko bojj ak yooyu ñoom seen yooyu nañ ko tege. non yooyu bu amatul amatul voilà yooyu amatul xam nga amatul mais nag taaj ak midi du neex neex fi mu nekk nii sa jabaat sa jabaat taaj ak midi du neex neex sama gaay waaw loolu góor gu bu sañoon am ko. am na lu dàq tàjjat midi waaw am na loo gis. bu ko lu muy neex neex am na lu ko dax waaw loolu gis am na lu ko dàq neex neex yi bari na. dama ne eh? dooy neex neex yi bari na. mais xam naa bari na. mais xam naa yow ci biir neex neex yi. neex. waaw yi ma neex waaw yow tànnal sa yi la neex bàyyi ma gi neex. la gi neex yi leen neex. mais dama la bëgg a xamal ni. ah la a xamal ni. waaw man bokk a xamal ni la. waaw bu mënuñoo delluwaat di la ca démb ba nekkaat fa à cent pour cent mhm. ndax système bi moo changé dëgg la bu njëkk ca teen bala ndaan roote mhm. léegi sa jabar robinet lay ubbi waaw ndoxu ndaa nga doon naan mhm. frigo bi ngay ubbi naan kon xam nga ne mëntu la nekk lamp lamp yi nga daan taal léegi am nga courant changé na bu yàgg système bi moo changé mais problème bi mooy il faut tamit ñu am ñun ay référence te bu ñu jël ay référence fan lañ koy jële est-ce que ñun ci tubaab bi la ñu war a di jël ay référence bu baax waaw mënoo amooloo lekk sa jabar amul lu mu lekk say doom amuñu lu mu lekk seenum njàng yàqu ngay takk ñaareel man loolu laa àndul. waa Ndoye wax sa problème Ndoye sa problème. am na la loolu problème loolu xam nga yow am nga takk jabar yow deuxième femme. waaw am ko de. jërëjëf xanaa kon xanaa yow. non naa la bàyyi parce que da war a nekk maire Pire moo tax. jërëjëf waa waa Pire waa Pire nañ ba far la maire. alors moom après bi ma posé woon Mariama <laughs> ci yow laa koy indi parce que Mariama <laughs> dafa def freestyle alors tey <laughs> comme ni ma laajee Alima est-ce que jigéen bi mën boppam tey euh, nit ñi ni ñuy waxee wii am na droit bañ ne du am deuxième femme est-ce que ki nga xam ne xëy na tamit maanaam dañ koy enfin ku takk nit sax yow yaa ko yor mais mënul boppam mënul booram financièrement est-ce que kooku tey aussi c'est pas parce que mënul booram financièrement que dafa war a nangu tey ñu teg ko yenn yi est-ce que comprendre li ma la laaj dafa ni mu dafa valable ci kële valable ci kii. jigéen bi matal. jigéen bi nekk ci kër matal. Mm. nekk jëkkër boo xam ni matalul. Mm. ni day takk ñaareel. te hmm? loolu ngay laaj bëgg a mm. takk ñaareel. waxuma loolu de non dama dama ne. Ah, waxal mu leer. dama ne. Hmm. <laughs> wala foofu nga bëgg a dugg. waxal ah déet dugg rek waxal mu leer. <laughs> ah demal. li ma lay laaj mooy mm. li ma laaj Alima ma ne ko jigéen boo xam ne tey dafa mën boppam mën booram financièrement nga xamante ne bu jëkkër ji defee benn mu def benn wala amaana sax ëpp ci kër gi moom moo koy def kooku tey dafa bañ ñu dañuy ne d'habitude dañuy bañ ñu takkal leen wujju dama ne nu mu ni kooku di bañee ak ki nga xamante ne tey dafa nekk ci kër gi xëy na moom dooleem loxoom jotul ginnaawam financièrement mënulul boppam dara lu mu defal xëy na dañ ko ko defal est-ce que kooku tey war na am droit kooku na mu ko laaj amoon lu muy bañ ah mais fii ku ñu mënal kii pay commande. Mm-hmm. am na benn kilifa bu ko waxoon fii. Mm-hmm. wa waykat bu mag boobu. kii pay commande. Moodu boo yorul bul bëgg lu bari bul commandé kon pour lan doole kee dafa yor. du loolu la ah, corruption conjugale. oui tamit ndaw si corruption lay def. non dama ni. def ko ngir yàlla dama ni. kii pay commande. Mm-hmm. soo yorulee da ngay wàññi sa bëgg-bëgg même booy xool waroo teen da war a sëgg ah. naat yaru mu ne boo yaroo boo yarulee da nga war a sëgg Afrique ak Europe mm-hmm. Afrique du bëri bëgg-bëgg mm-hmm. Europe mooy commandé boo yoree sa jabar bu am xaalis yor hmm. soo yorulee yow jëkkër ji wala ngeen tolloo ngeen na ngay takk ñaareel da lay fase moom ku jigéen ki moo lay fase ah bon c'est normal je suis d'accord mm-hmm. léegi ki nga xam ne xëy na moom euh, mënul booram loolu da nga am da nga am droit de revendiquer dara <laughs> yoroo dara wax dëgg yàlla waaw su ma la abalee sama bët moo leen fii ngay ah, xool fii ngay xool kon ni mu valable ci ku góor ki ci ku jigéen ki noonu la valable ci ku góor ki tamit mais dama di la ku yoru daal waroo bari bëgg bëgg waroo commandé kenn. ok <laughs> dëgg. fii daf am dama la moo xam la benn affaire. dafa am benn dafa am góor yoo xam ne depuis cinq ans dix ans ñu ngi bëgg a takk ñaareel. seen aaw ni leen su ñaareel bi ñëwee ma génn kër gi. ñaareel bi dégg loolu ni ko sa aaw tant que mi ngi kër gi du ma ñëw. Mm-hmm. aaw bi def ngeen vingt ans de mariage am na ay doom yu mag yu tekki moom yor na da ngeen ma la mm-hmm. ñaareel bi tamit depuis cinq ans yaa ngi dund ba munoo dund sans moom xam nga ni takk mbaa dee mu xëy benn jour ni la fin du mois am na ku ma bëgg a takk boo takkul mu takk ma mm. bu ma ko takkul mu takk ma waaw ah, non am na ku taxaw pour takk ma mm-hmm. yow cinq ans waaye ndaw si wóor ah, na leen soo ko takkul sa life yàqu ok mooy sa seytaane maanaam léegi comment tu vas ba am li nga bëgg te kenn si ñoom ñaar du la conditionné foofu la ñuy xamee góor. Mm-hmm. bu doon yow Modou nooy def allez Modou. soo ko wàccee ñu bëri dañuy am problème bu tontu. Mm-hmm. kii nee na la bu kii ñëwee ma dem ki nga bëgg ni aaw bi bu ma bëgguma ko. aaw bi moom dem na bu yàgg bu dee yow. <laughs> fekkee moom nga amal ay doom yu mag. quel dilemme non mais laaj eh, Modou am dilemme c'est le cas de beaucoup de gens ici à Dakar beaucoup personnes yu ma xam. dëgg la mais mais mais Modou ñemewuñu takk. te bëgg nañu kële takk parce que dañu eh, signé monogamie wala non wala seen fit moo amuñu fit boobu dañu nekk ci condition ñu teg leen fii dafa bari ñoo xam ah, dañ naan la boo takkee ma dem mais Modou kenn la du ma ñëw tant que kii jógewu fi léegi ana góor d'accord man moo duggee bu dee man ki ma hmm. doon waaj a duma la takk aaw bi ne yi fase naa la bu yàgg <laughs> lii laa doon wax nga ne xamoon nga wax nga dama ni mm. ki ma noboon mu ne ma sànq sa aaw mi fi du ma ñëw mm. man ko takkatuma la ñëw ci aaw bi ni ko fase naa la jël say bagage eh. doxaan naa dundaat sama life ndànk ba takk on ne ma condition man kenn du ma conditionné sa doom yi nag je m'en fous des enfants eh. sama bonheur laay xool waaw ah, man soo doon man la moon eh. dinaa topp ay bon sama déggoo li ma la wax dama ni la les enfants ont <laughs> grandi doon ay parental man su ma amee cent doom yu ndaw mm. cent sama doom yu ndaw du ma leen jox sama dund bàyyi sama bos. yërmande. yërmande pour kon yow ndekk jigéen daal en fait genre benn benn benn. affaire jigéen war na conditionné jëkkëram ni ko boo indee keneen ma dem. en fait gis nga yow sama pourquoi jigéen di ma conditionné sama xarit. bu ko bu ko jël fu metti non dama gis nga say compromis la mani mani je suis un homme xoola man dama la xam affaire non dama ni ah euh, dafa am seen jalan ñuy dund loo xam ni dama leen di xool ma ne nii est-ce que ay góor lañu wala ay jigéen lañu mais mm-hmm. Modou man dinaa bëgg a takk ñaareel sama aaw ni ma boo takkee ñaareel ma dem te ba may signé yaa maa yow polygamie nga nangu <coughs> ah ok ah, mais bu leen bu leen mais attends il faut ngeen di déglu mais ce que peut-être y a anguille te loolu moo nekk fii kële tamit ñaareel bi nga bëgg a bu amee fula ni na comme ça aaw ah, day na bu ma ñëwee mu du doo ma takk mm-hmm. moom it tànk mi ngi fi du ma sëy ak yow léegi yow tu préfères wàcc leen ñoom ñaar man may man man y moo un mot que je voulais dire mais mais kon du baax déedéet bàyyi bàyyi ma laal ko tuuti tànn lu mu lakk ni. gelé moi. gelé loolu dama ko am. lu ma takk kii damay fase kii. waaw waaw tu as quoi exactement. je peux pas le dire. pourquoi mais tu le sais tu l'as deviné. mais c'est un débat. non tu as deviné ah, ce que j'ai dit. Eh, waaw ok léegi xam nga nan la ñuy def comme que ay deviné yooyu yëpp daf cee am dañuy def ci tardwaa ñu dem def ambiance ah, tuuti le temps que yëf yi di wàccaat. ñu ñëwaat nag ci ci ci am na xisa boo xam ne kii yaaw am na xisa boo xam ne moom après dina ko firi de kii kan dooy waaw waaw te di nga toogaat fii jeex na nañ dem ci tarba ñëwaat mu daal di koy firi ayca tarba euh, dégg nga un peu li nga xamante ne mooy thème bi tey ci <laughs> monogamie thème euh, tarba si c'est pas bon indiscrète euh, am nga soxna eh xale la ah <laughs> waaw yaa ngi ci jàng alors lan nga jàngatee ci waxtaan bi ok yow tey d'accord amago jabar mais quand en tant que góor jullit yow nan nga gisee li nga xamante ne mooy mooy thème bi. yëkkatil tuuti sa micro rek waa kay. muy góor da ngaa war a mun ngaa am ba ñeenti jabar waaye ci kaw nag boo ko mënee. parce que ah, tamit booy takk jabar di jël ay doomu jàmbur nga xam ni seen dund. Mhm. ci yow la wékku. na nga fekk nga mun ko mhm. mais nga takk leen ba pare di leen souffrir loo bu ñu añee du ñu reer loolu tamit c'est pas normal kuy tàkk daal ku dem ba bëgg bànneex mm. sa bànneex na ko sa doole antan mhm. boo ko munee def ko yàqul dara waaye boo ko munul mm. yemal ci benn rek mhm. noonu daal laa ko jeex na <laughs> ay tataaba wax ji am na solo alors euh, fan ngay ñëw ak ñun ah? mane fan ngay ñëw ak ñun léegi nii ci deuxième léegi damay ñëw ci biir thème bi waaw daa am morso bu ma bu ma way naan téye leen ko ku ci am góor gu baax na nga téye mm. ah. comme que boobu génnul thème bi nag. bi waaw naa yi rek. def ceeg sotti la. di ci Hiroshima Nagasaki naan yang sung nga naan yu konka ngañ ngi fi. <laughs> yes. be tukulóor bi takkula ko takkuma ko jigéen la yërëm ko waaye waaye bul ko sayi saye mu dugg yi du say sayi jigéen njambeek mar xaase ma seen bu guru yaa awa guru bind gisi guru alima mudu mudu mudu gay mudu gi gentleman bi la mudu gi champion bi la man bëgg naa la man di naa la waaw mbëggil yaa mën a boole nit ku ñuul ak yaa mën a boole bàjjen fay ak Papa Ali Gueye takku la ko takku ma ko la yërëm ko man mi xam du la say sa naawa ni xasan yaay sama mool may biibi bëggil sa gàll yaa koy joow yama ci sa gàllu mbëggeel di ko joow a joow foo jërëg man saf na ma mën ci seenu ba tax pour lu baax daa yombatul loolu yaa ko moom téye leen ko téye naa ko ku ci am góor bu baax yow moom ko téye dee kay toppatoo góor yombatul di ko wax wax ju ne ndax moo koy sagal fonkal sa jëkkër di koy bëggal di ko toppatoo góor yombatul da kay wax wax ju ne fonkal fonkal fonkal irisima naka saki saki saki saki saki saki saki yamsu yo seri irisima naka saki saki saki saki saki saki saki danga naan irisima naka saki saki saki saki saki sëb yu ambiance bi am na solo. ah. nee na mi ngi ci tarba tarba am nga problème. yow yow kon Alima yow ku fi ñëw rek nga tëj. Ah, la de. Ah, gamee la añoo. ay ay ay. non bàyyi naa man non garaawul man garaawul kan Alima. non pur. yow man ngéwél rek laa mën a sëy ngéwél rek a sëy. waay waay waay te tuuti Moustapha Mbaye nga gërëm. waay Alima yàlla na ko yoon neex man waa. yàlla na ko yoon neex man waa Kër dañ maa bëgg gamee bu fi Alima waxante naa ak yow te naa li ma wax. dugal boo duggee doo ko ñàkk. Alima waa Kër dañoo bëgg ma gudd fan. Eh! ku ku jërëjëf Alima jërëjëf. voilà tar ba gudd hmm? waa Pire dañoo bëgg laa soxla. waaw xale nga da nga nekk ci yoon. waaw yoon. dëgg la jërëjëf Alima demal na fa yoon neex. waaw lii lan la nii lu ah, euh, ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax ci ambiance bi nga xamante ne ah def na ko ci plaque bi mm-hmm. sëñ nga yëngatu na ndooy tamit dóor na pooj. waaw ah. ma nouveau père nouveau ah. père maanaam nouveau père sax. ndooy ma man gëj. man gëj na maa yëngu yàgg na yëngu kay gis naa ko depuis ay doy nag ci jamonoy kàndo bongo man ci nga gëj a yëngu ba nga xam da ngay takk sa ndigg ba mu dëgg mel ni kuy wéqu ceinture bi fii tóoj <laughs> jërëjëf chers téléspectateurs alors di jusque ni yéen a ngi toujours cette biir émission Kakatar gis ngeen nag thème bi tey li nga xamante ne mooy polygamie monogamie moom lañ fi indi comme ni ñu koy defee à chaque fois ku nekk rek am nga ci sa xalaat yéen ñi toog seen kër aussi xam naa ne débat bi mi ngi ci biir kër yi donc euh, ñu ngi continuer toujours ci émission bi alors Ndoye fi ma ñëw ak yow mooy à qui profite cette situation mooy polygamie. parce que tey kan moo ci gagné. waaw kan kan kan laal yëf yi ci kan la gën a gën a gën a kan moo ko gën a jekku daal. waaw man pour man góor ñi ñoo ciy gagné parce que jigéen ñi comprendre nii dañ leen di nax. ngay gis da nga yor ñaari jabar wala ñetti jabar ku góor gi day jéem a def tout ba ñoom ñett duñ juboo ngay diviser pour mieux régner maanaam na nga naan foofu foo dem rek ni foofu gën a neex. ni kooka waaw man de yàkkamti woon naa ASC comme di ndaw si ñu ngi koy wax da ah, am na nee na waa da lay woo sax naan la namm naa foofu fekk fa mu nekk gën a neex ah. mm-hmm. mais mi ngi woppee ndoon naan ko namm naa foofu mm-hmm. ma nga yàq deru fa fa fa mu far mm-hmm. te jigéen ñi xamuñu ni góor ñi dañ leen di jàpp di leen manipuler di leen nax ñuy xuloo seen biir di dem ci sëriñ yi di fay naka di def naka su noonu or que jaru ko su fekkee da yàlla dafa def nga nekk ñaareel wala ñetteel sëyal ngir yàlla def li ngay def nga teg ko ci loxo yàlla nga dem te nga moytu jëkkër sa jëkkër di ñëw di yàq sa deru aawo ci yow. Mm-hmm. ngay kontaan xam nga da ngay dégg sama wax souvent ma naan femme yàq femme. Mm-hmm. femme détruit femme jigéen buy jooy rek moroomu jigéenam moo ko jooyloo. Mm-hmm. parce que moroomu jigéen boobu day jéem a def tout pour moroomu ki muy wujjeel am defet. jigéen su moroomu jigéenam amee defet day bég ndax góor. góor ñu jarul ngeen ni utante ngeen ni ngeen ni rayante jaruñu ko de parce que lu mu yàgg sëy boo gis ci àdduna lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg day tas. ah soit di nga dee wala na ah. waa ji dee. Hmm. su waa ji dee nga dem wut beneen jëkkër. fàtte waa ji. am na ku koy bañ a photo ya nekk photo ya photo ya ba nga wékki ko wooy wékki yeneen photo après di ko jëw te naan moom sax ba mu tëlee yàgg na. yooyu yooyu nga wala ba mu feebaree yàgg na yooyu la lay c'est vrai. yooyu la ñuy te yow fekk boobu sëy ngeen vingt cinq ans trente cinq ans lu nekk defal nga ko ko nga koy jaw sa benn après ngeen tas yow aaw ba sëyi feneen ñaareel ba sëyi feneen ngeen tas seen doom yi et soo seetloo rek benn affaire wujje ngay wi ngay waxtaane wujje moo am partout au Sénégal bërëbu liggéeykaay yi terrain de football yi foo mënti dem wujje nga fay fekk mm-hmm. c'est parce que ñu ci bari ñoo judd ci kër goo xam ne kër mm-hmm. wujje la mm-hmm. nga gis sa yaay di def yu bon sa sa ñaareelu papa sa ñaareelu papa bi ay doomam di teg bët muy def lu bon wujjëm maanaam ngeen màgg ci jóg ci foo leen dem liggéeyi wujje boobu noonu ñu jàng ci biir mm, kër gi soo seetloo moo am fépp da ngay dem tey jii nekk ci bërëbu liggéeykaay sa morom di fa def émission bu neex ngay mer mm-hmm. lu tax ngay mer da ngay nekk di wujjeek moom wujje boobu noonu nag bokk na ci li tardel dëkk bi de mm-hmm. parce que dañ ko tàmm dañ dañ ñu tee tàggat mm-hmm. xam ñu lu dul affaire u concurrence mu mooy concurrence concurrence boobu noonu nga xam nag dañ koo jàng ci ëtt bi màgg moom fu ñu dem dañ ko yóbbaale ba bitim réew dañ koy yóbbaale fi mu nii dañuy wujje sax koñ bi ku gën a rafet kër ku gën a rafet oto ku gën a rafet jabar kan moo dàq liggéey su émission ba jotee kan mu la émission am gën a gën a dox nombre de vues lépp loolu rek la ñuy nekk concurrence mm-hmm. fu ko jàngee ci biir kër gi ñu nàmp te loolu ah, baaxul mm-hmm. soo gisee ni sa wujj bii moo la gën a rafet xam nga ni moo la gën a rafet loolu la yàlla dogal sa jëkkër bi sa mu wujj bii mais loolu am na ñoo xam ne nag amuñu capacité pour pour accepter ko waaw mais du fan day faatu li yàlla may loolu yëpp ci cause waaw feebar yeeg ah, dépression yeeg yooyu yëpp ñu ñëw mais mais mais mais mais Ndoye Bane émission am de la semaine ak wareef ak yooyu dafa dox dafa neex Sénégal yi dañ koy seetaan yeewu déglu ko loolu la yàlla dogal mm-hmm. même su fekkee yow neexuma la soo yeewoo di nga taal rajo bi déglu Ndoye Bane mm-hmm. loolu la yàlla dogal mais su fekkee loolu da ma ko bëgg a soxare tu vas mourir très vite mm-hmm. man damaa mën a togg sama yaay su daan togg dafa ma daan yóbbu marché toog ma ci wàññi may togg lu neex yow nag ba may sama yaay di jàngal togg yaa ngi woon université di jàng mënoo togg lool la yàlla dogal mais yàlla dogal na man tam damaa mën a làkk français jàng ba may jàng boobu yaa ngi dem marché ku nekk daal ak liñ la jagleel ko ku nekk li la yàlla may nga yi bàyyi ko ko yéene ko ko ñaanal ko jàmm soo leen ko defee sëy bi dina neex mais gu jigéen ñi nañ xam ni góor ñi dañ leen di tàqale li leen diviser mm-hmm. di leen diviser di ba diviser seen njabooti mm-hmm. après dee bàyyi leen fi ne ngeen di dem tribunal di fi di xëccoo benn kër su ndaw mm-hmm. di liggéeyante d'accord ndoy leer na alors Pendo. xëccoo kër yi lu ko indi. miraas yu difficile lu ko indi. soo amoon benn jabar ak cinq doom. miraas ba du garaaw. Mm-hmm. mais tey ji imaginer nga am benn kër. am 164 doom nu ngi koy séddooyee mm-hmm. problème nga fii indi ah yoon ñetti jabar am doom yi dul jeex mm-hmm. nga dee bàyyi fi problème bu dul jeex ak yéen doom yi feeñu la doom yi feeñu ña ne Tamba ña ne Ourossogui <coughs> ña nekk fu ne la ñu ne baa bi dee ñoom ñëpp yenn seen ëmb ànd ak seen yaay kii amoon na ma doom ba bañ ko fi mm-hmm. affecté muy jàngale ca école 1 ci la ma ca ca ca ca mm-hmm. yeneen doom génn mm-hmm. loolu yëpp nag lool loolu moo koy indi ak musiciens yi yi nga xam ne suñu dem tëgg fa ci bàyyi ko fa yooyu yëpp day feeñ guitare kat yeeg clavier yi <laughs> jërëjëf Ndoye alors Pendo fi ma bëggoon ñëw ak yow mooy que comme ni ñuy wax euh, à qui cette situation parce que tey bu ñu nee polygamie jabar yu la donc dañuy ne est-ce que ku góor ki tey dina mën a matal fépp parce que quand même quoi qu'on puisse dire nit da nga soxla affection di nga soxla amour nga koy joxe ñu la koy delloo ça va dans les deux sens est-ce que tey ku góor ki yow looy ree ku góor anima neexuma est-ce que ku góor ki tey vraiment euh, quatre na avantage am na inconvénient tamit parce que tey bu dee foo dem rek yow mm. Mm. bëgg nga peut-être bëggal ki nga nekkal mm. wane ko sa cofeel wane sa mbëggeel ak moom wane yëg-yëg bi ngay am ci moom mm-hmm. tiire est tamit ah. tiire. non du tiire de wane sa yëg-yëg sa bëggeel rek. Ah, neex neex fi ko nit ñi di bëgg a yóbbu. ak fi mu nekk mun naa nekk ngeen tëdd nii rek ci neex neex. Mm. di waxtaan. te te te waaw dañ ne quand nga yamale. waaw nga yamale nga yamale yamale boobu nag gëw ko. parce que xam nga lu tax. yaaw kii day ñëw di tëdd. tënju. kii def deux kee def beeco. kee def leneen ak leneen takk ay fer kii takk ay te ka nit yi ñoo bëri ay fantasme xam nga tey boo ko waxee ne ndeysaan ñii seetaan sax di leen ne yéen ñi ñi nga xam ne amuñu jëkkër ñoo gën a mën a joxe conseil kon lu tax toogoo leen loolu la ñuy wax <laughs> dëgg dama koy faral di dégg li tax toogoo mais problème bi mooy boo àndee ñu la ah, kaay ma wax la dama ni góor bu nekk eh, ay déglu ba si kër ay dooy bàyyi xam nga boo ko waxee dama ni góor gu ne ak la taal <coughs> man ngaa sol la ñuy jaay aselem lépp te waa ji du yëngu mm-hmm. am na ñoo xam ne nga wajoo sër bu rafet sol lu rafet xeeñ lu neex may ko ndox sukk looloo koy yëngal. waaye léegi waaye bàyyi ma waaye. Ah. Ah, am na koo xam ne sa yaa saydaa bi jàng alxuraan booy jooy moo ko yëngal. waaye waaye kii du déglu moom. mais loolu dafa am da war a nekk maire pire yamaleel say wax. dama ne ku nekk ak li lay daaneel. góor mm-hmm. gu mm-hmm. parce que ñeenti jabar boo ko amee mu yamale yëpp munta ne ndax suñu borom sax yamalewul suñu baaraam yi sax yamut. ku nekk ak feem ba ngay andi. donc ku góor ki moom ba nam fi mu ne te man je me suis dit booy sëy ak nit man sama xol laay dundal dundal lu ma sa yaw yow de su sa xol ne même parfum bi may def naan pour man la du pour yow. Mm-hmm. pour man la man di ko xenc mu di man neex waaw kon sama sama jëkkër man su du ñëwee mm-hmm. pour man li may def ak moom pour man la bégal sama bopp est-ce que comprendre nga li ma bëgg a wax pour mm-hmm. man maay njëkk a def sama bopp plaisir ba pare mm-hmm. après keneen kay def plaisir loolu moom la mais ñaari fa yi ngay aye fi dañ ko dëbb ba mu mel ni sungu fu suuna soo demee fële yaa xam boo fa nekkee di law loolu yow la du dëgg lu leer laa la wax xam naa ne du ma dama lay wax addu jungo <laughs> waaw kay su ma moom <laughs> addu jungo yaa ngi dégg dëgg la neex neex boobu noonu su ma ko waxee dina am ñu mu arrangé am kay dañ naan sëyul ay waay ah, ay boo leen xamoon li ma xam di oh. ngeen bàyyi may wax <laughs> parce que xamul tax problème bi neex neex bi foofu la ne da ngay oh. bégal sa bopp tey moo doon sëy ak Modou Gueye tey Modou Gueye duñu xeex duñu xuloo naa li mu bëgg non mais dama ciy dox ba ba ba Modou Gueye foogoo damay tëdd man. waaw mais bu dee yéen ñëpp noonu ngeen naan moom est-ce que dina ko fekkee. waaye ma ne bu ko fekkeewul nag kaay wax la ah, ñaari baat. parce que bu dee bu dee non defal naan day moom il faut qu'on se dise la ah, vérité. dina ko fekkee yaaw de dina ko fekkee de. <laughs> mais bu fekkee ci aaw nga jógee ci ñaari ba man ma nekk ñetteel. waaw doo dem la kër goo dem meer ba nga fay fekk paa ba dem. <laughs> seetlu rek kër paa diw leen doon wax léegi kër meer diw rek lii yii leen rek. am non mais à un moment donné quand même il nga doxaani parce que su dee tey ku nekk. may ma ak la ko yaay foo dem ku nekk jël wàllam. léegi ki am benn jabar kese. taxawaalu ba mu nekk ci xale jigéen ñi wëndaalu ba ay xetam dagg. nga ñëw sama ke non par force doon nelaw yow. ah waxoon ah, naa ko maa wax doon nelaw. waxoon naa ko loolu la defee woon. ma dama waaye mais si seen. lu ma loolu la de am ki gisul rosa gisul melax melax bu la laal. sama yoon nekk ci mën ngaa jaar ci benn téer bàyyi Modou Kane nga mel la romb la loolu amul problème mais li ma wax dama ni soo amee benn jabar waa dégg ma expliqué dama ne boo amee benn jabar laa nga taxawaalu ji ba doyal heure tëdd jot nga ñëw sa kër tëdd yaa awa xoolal di nga liggéey liggéey bi bàyyi foos ah. na ko xale jigéen testé ñu xool ah, ah oui dama ne soo amee ñeenti jabar est-ce que di nga matale ñeenti yëpp ma ni léegi ki am benn tey wër moom di doxaan di bale boo jógee kër Fatou yaa ngi kër Adama yaa ngi kër Nday Fatou nga taxawaalu ba tey léegi tëdd jël nga ñëw ba sa kër di nelaw na doo nelaw yow fii doo fi nelawee dégg nga lool oto daanu doo nelaw pour lan testé ko yéen ñi yor benn jë benn jëkkër ngeen xool léegi ngeen jàpp mais dans le sac kon bàyyi leen leen ñu takk noo koy jàppe noo ko laa yow man déggu ni ma yow doo doxal tuuti ba doyal mais boo ñëwee ci kër gi moom di nga ko ba mook ba mu mel ni sungufu suuna. da koy risqué <laughs> nan wax wax ji. te loolu rakaaj non non ay wax. <laughs> ay Modou la bi ñu am noonu. ah ci Modou. Modou Modou Modou. fan laa la doon xaar. Ah. bu la wóoree ni day jàdd. waa xam nga wóoree ni day jàdd ba bu ñëwee nga ne ko doo nelaw foog nga jàdd kii yow tamit. waaw loolu tax doo tas dem sa yoon xam ne jàddkat nga nekkal. Euh, pour la nga sewit yow gaaw ngaa tas nag te gaaw ko bu lay mooy matin midi soir nga toog naa ko yedd bu lay yore. mais déggoo ne boo tas yow bu mu yow tas tas daal xam naa ni yow. man man ngay takk ndax guro dafa la fii am na ay jigéen yu diñ bu leen wóoree ni seen jëkkër day mooy chaque jour bu ñu ko xamee dañ koy tas day day sëy bi day dem tas jigéen bu jigéen da a fulla diñ waaye ban góor moo fi mooy ne ñëw mm. xam nga ni day dem bu du nelaw dama ne dama ne kii dem di mooy bu xamee ne ki mu yor mënu ko satisfaire wala na ko wàcc mu dem pour muy def loolu ah, c'est ku jigéen dafa war a dem mais non pourquoi chaque fois ngeen a eh. ngay eh, gis dañoo eh, takk fii ku la neexee nga xaar góor bu fekkee dañ laa takk yow yaay ñu de takkuñu de ñaata góor ñoo fi am jabar di ëmbal feneen di ñëw di ko tuddee seen aaw aaw bi toog. mais mais Modou est-ce que tey mooy dafa tas sëy am sa fulla ah Modou. lu tax nga jël célèbre teg ko ci góor. Modou c'est pas du loolu du mbëggeel. lu ñëw si thème bi may leen may leen dafa am lu may boo ko bëggee tam moom bëggu la. est-ce que tey ki la bëgg du dem di biiral feneen. mooy dafa tas sëy tax na sëy tas. mais bien sûr lan. loolu rek a war a tas mais jigéen sëy boobu rek war a tas. jigéen buy mooy moo war a tas mais góor non bi laa ma pas góor gi kay ma ne loolu ci ci charia la wala li ñuy wax nii rek. moo ma yéem nit ku nit ku mooy. da waaw dañuy nit ku mooy. Ah, tas waru fa parce que bu fekkee charia lu mu tëral mooy ku mooy dañ laa war a rey. dañ laa war a reen waaw waa nga leen dul jàpp sax waaw waaw léegi. léegi nag kon bu boobaa. waaw léegi ku lay ku lay rey. Sanjay fii Sénégal kan moo lay rey. non dama moo tax ma wax. dama ni Sénégal kan moo lay rey xam nga <laughs> ah. wax ji ñaar la. ndooy bu ah. fekkee dañuy wax nii ci charia. waaw ku mooy dañ laa a rey. waaw fii su ku la war a rey. dama ni kenn kuy rey amu ni dama góor bu xamee <laughs> góor mais lan moo tax lan moo tax man bëgg naa kan la ñuy laa xam. nañ dégloonte nañ lan moo tax góor bu bettee jabaram mu koy moy mhm. mu fase ko lan moo tax jigéen bu xamee ni jëkkëram da koy may du ñaan ba jëkkëram yombul nag. da nga ko dul xam ndax day mooy Modou Gueye. jëkkëram yombul de. c'est pareil jaalo jaalo la mooy am na góor jigéen yoo xam ne. non non doo ko xam laa wax. mooy la ñoo yem xam wax la lu leer ñoo yem atte de. soo ko bettee daf la nga bett sa jëkkër muy mooy. loolu leer la su ma bettoon sama jëkkër mais dans le sac nopp ko du ma du ma tas. man jigéen du ma fa jëlee nag jigéen moom dama la ñaan jaawa mooyal ba sa xel dem mais man tasuma. am naa ci droit man. jigéen du ma puus sama place man. tamu tamu tas nii loo xam ne la man ah ma dóoraat. oui sama tas bi man Modou Gueye loolu yaa ma fàtte. waaw léegi wuyu la ma fenn Modou. ah bu ñu ci ay biir privé maa ngi tas foo xam ne mm-hmm. dafa am lu ma bëggoon dugal. te lu yaakaar naa bu fekkee dañ ciy bàyyi xel lu am solo la. parce que dafa am benn borom xam-xam bu am lu mu wax nee na sëy su fekkee tëdd ci kaw lal bi rek am ci bànneex moo gën a moo mujj ci sëy moo gën a. maa wax loolu. mu ne lan bu fekk yow yow yow xam nga. ce n'est pas vrai yow da nga juutal affaire bi da nga ko juutal ñun waxu àddina lañ waxuñu ay diine. non da ngeen may dama ni li yow li nga a nekk ci. non non non non non non non non non non non non non non non non Modou déglu tiire bee jiitu. Modou tiire bi jiituwul. barke alxuraan. tiire bi jiituwul tiire bee mujj. ce n'est pas vrai. non mais yàlla ñun xam nga ñaata nit a dee. mais danga may may may may man maay wax. man ah, man maay wax danga may may ma wax danga may ma su la neexee li nga gëm nga taxaw ci mais nga bàyyi ma ci. adduna ah, bu mel ne nii tiiree tax. ah, ah. Eh. yow gëmoo tiire. Eh, sànq fii gëmoo tiire. kan moo gëmul tiire yow gëmoo ko yow man lépp ah, tiire laay tiire ba moom moom tiire too moom tiire too moom tiire too yow parce que yow ñi nga amoon ñëpp bàyyi nga leen moom tiire too waaw kay da ngaa tiire dara singili nag. non moom du taa tiire fada ñeenti jabar bëgg nga topp ma bu ñu fekkee bu fekkee dañuy wax ay tireur tireur de lutte yaa ngi nii am. waaw kay waaw kay. waaw waaw. waaw kay man ñii ku ma ci waxal ku ma ci waxal da man ñaari jabar laa yor. Eh, si ba lu ma jàngal xam-xam ñaari jabar Modou may ma ñëw de. a dafa am loo xamante ni. si la la koy defal du ma la ko defal sama waay nga du ma la ko defal sama waay nga si le plan la la koy defal dama la koy paasaat waaw mm. ah, léegi li a dafa am loo xam day laal adduna muy bànneexu bakkan oh. mais day am loo xam dafay laal suñu diine te ñaar yooyu ñu leen boolee mën nanoo ànd mais kenn ku ci nekk bokkul ak moroomam li muy wax mm-hmm. tey jii bu benn kilifa taxawee ñu ñuy jàngal parce que dafa am borom xam-xam bu wax ni sëy dañ ko waroon a jàngale avant ñuy may nit ñu ñu jàngal leen sëy ba ñu xam leen moo ñu yóbbu leen ca jàkk benn borom xam-xam mu ni su fekkee ni sëy ànd ak sa jabar ca kaw lal ba bànneex ba nga ci jële mooy sëy loolu mooy li gën a tuuti sëy mm-hmm. mu ni fekk góor ak jigéen boolewuñ leen ñoom ñaar ñu ànd kenn ku ne yëg ni yokku nga ci jikko ak ay valeur mm. kon ba léegi sëy amagul mm. loolu kenn mënu ko dindi xam-xam la mm. isa may dégg leneen la ca des dindi naa ko yow waaw dindi naa ko waaw yow tiiree tax ngay tax mais Modou non dama koy xamu tax xamu tax mënu ko la ah, Modou yaa dama benn ah, rek damay dugal benn yaa a ah, waxtu doo ko mën a dindi léegi mais que am nga jabar amaat jabar. may ma lu tax ma di am nga ñeenti jabar. Mm-hmm. tey su fekkee ànd ak sa jabar ca kaw bu muy bànneex kese moom nga soxla doo bàyyi jabar. Mm-hmm. heure boo bàyyi jabar c'est parce que am na lu manqué ci moom loolu mooy valeur yi. Mm-hmm. loolu mooy manqué moo tax ngay bàyyi sa jabar. non non c'est pas ah, vrai kon valeur mooy. attaque non peut euh, la waaw. 120 <laughs> milliards de personnes ñoo nekk ci biir suuf ñoo dee. Hmm. ñoo dee ñoo dee 120 milliards de personnes. ñoo dee man de kon man nañ loolu ma dégg moom loolu mais ma yeggale rek. <laughs> mais ma yeggale 45 milliards laa dégg xaw ma 47 il faut ngeen déglu. ñëwal 120 milliards de personnes ñoo faatoo gum. yow maa ngi naan sa ndox mi sax dama ko jëlal. presque 8 milliards ñoo nekk ci kaw suuf. waaw léegi. tiire am na solo wala amul solo. tiire waaye du loolu rek moo yor sëy. non dama la bëgg a wax leen. Adama ak Awa kese ñoo fi nekkoon ñaari na mais laisse-moi finir non ah, dama ni la dama ni la dama ni la dama ni ak Awa rek ñoo nekkoon ci kaw suuf ngeen jël seen bagage dem hmm. cent vingt milliards yi dee ak huit mu nekk cent vingt huit milliards de personnes xam nga dama la dama ni la doomu aadama yàlla si boppam moo ni multipliez vous hmm. jur leen ah ngeen bëgg a jël ni jur moom du am solo. mais jur ci. ci lan moo indi jur du sëy. waaw ah. nan la ñuy jure fenn ci bàkkeel wala ci bopp. ñii ñii ñii lay waaj a attaqué jur leen gi nga wax. Ah, mais l'islam moo mais waxuñu la nga takk jabar yu bari yoo xam ne soo leen indee duñu am am loo xam ne du ma ko d'accord dooy am na loo xam ne du ma ko d'accord mënu ma ko d'accord parce que su fekkee ne da ngaa bëgg ni yow sëy bi bànneex bi ci kaw lal bi moo ci ëpp solo aral ko sa jabar bu amul jikko nga dàq ko kër gi kon bànneex bi jiituwul. jikko yee war a jiitu non non c'est pas vrai ñu defar ko mais ki ki nga dàq mais ki nga dàq da ngay non xoolal yow Moodu li nga wax. mais ki nga dàq li nga wax loolu la ñu war gëw ma li nga wax gëw ma ko. d'accord parce nga fase su lal ba neex na jikko yi ña fa kon di ngeen ànd bu ngeen àndee ca kaw ba nga wëlbatiku gis lu manqué ba ah, neexul mais attends ah. ah, mani mani mani fii fii bëri na ñoo xam ne lal ba neexul te ñemewuñoo fase waaw non xam nga yow bokkul man téere laaj xool yow berantu yow yow ak ñoom bokkul fit yow fit bi nga am sama wax dafa bokk ci biir sëy li may wax dafa am mu day li ngay wax man li may wax waa d'accord léegi man xam yow loolu ma wax léegi waa léegi yow li nga waxal da nga bëri yuux non non non non ma waxee sama wax kenn du ko dindi parce que li ma wax ci xam-xam laa ko teg xamoon naa ne bu ñu buggee ci téere yëf yi nii lay demee. <laughs> alors léegi non bu fekkee sëy moom amul téere tiire moo mujj ce n'est ku nekk am nga droit dama ni la bànneex mooy sëy bànneex mooy lal ah, bànneex kaw lal kaw lal waaw donc moo toi du lekk ak naan ak ay xool dara xaar kaw lal rek ah! kon mën a dëkk man ba tax ma sori waay ok d'accord dégg damay ñëw ci mbir yaaw euh, yaaw xam nga dañoo nekk ci émission dafa nànk rek dafa nànk rek dañoo nekk ci émission boo xamante ni adduna na la ko waaye dafa nànk ma oh ne nit ñi seetaan sama dégg c'est clair su wax waxuñu waxuñu on se marie pas parce que kaw ba yaa sa jëkkër amul solo mais li ca gën a ñàkk solo loolu la mm-hmm. parce que bu fekkoon loolu mooy solos góor ak jigéen ànd mm-hmm. kon ñaar ñu ànd du ñu bàyyante Moussa mhm. jabaat demee mooy yàlla sax bu dikkee nga ànd ak moom parce que bànneex bi ngay bi ngay xaar ci moom sax dëgg la d'accord ok léegi ku nekk xale yu ndaw nañu wër ba ñëw toog moom loolu la gëm attends voilà d'accord alors Myriam fi ma bëggoon ñëw ba léegi mooy comme li ma wax est-ce que tey peut-être euh, jigéen dafa soxla affection dafa soxla mhm. amour dafa soxla koo xamante ne mi ngi nekk au petit soin mhm. voilà mu sentir ne vraiment kii kat bëgg na ma yëg na ma alors tey est-ce que tey ki nga xamante ne dafa am ñeenti jabar dina mën a yooyu yëpp ci ñeenti ah ça c'est une très bonne question man je pense que sëy moom bu ñu nee bari rek mbëggeel war naa mën a am léegi nag ki matale moom yàlla ko xam mais man li ma jàpp daal mooy que ne ku nekk boo ayee. joxal sa borom kër jàmm. neexalal ba mu neex. ba neex te nga nangul yàlla dogal. wala nga nangul sa borom kër def boo parce que am ñu ciy génnee des fois yàlla ne yow yaa ko tey wayte chercher une deuxième femme man je suis bien jàppal bàyyil. boo xamee lii yow mënoo tas li kii wax pour nga dem. kee tam nee na moom tam day ñëw parce que ah, en fait boo demulee moom euh, du ñëw ngeen fexe ngeen ne xal daal te xam ne tamit wax dëgg yàlla meew kese ah boo ma xew yàggee mën ngaa fodde def ko ci ndox nga yëngal ko def ko suukar ak gloria day gën a neex mm. il faut nit ñi dem ci évidence bi te xam ne fii ñii dañuy takk mm-hmm. wax dëgg yàlla nag jigéen bu juddu ñaan nga yàlla ñu muur la nga sëy mm-hmm. nga am ay doom mm-hmm. léegi nag sëy tam après yàllaa ko yor tamit doom tam yàllaa koy jur pas jur yàlla mooy xool lu ko neex mu def ci ñun maanaam li ko soob ñun tamit vraiment choix yi ñuy jël mooy définir suñu vie fii lu waaye def choix na nga ko assumer léegi nag boo amee waajur yoo xam ne daa am jabaram responsable teral a woom ñëw di la seet si pour la ba def la deuxième femme mm-hmm. nga xam ne kii teg na ko ci yoon mm-hmm. te bëggul foog yoo njaal ak yow mais sëyal ak moom waaw waaw mais na nga neexal aaw ba nag sénégalais yi dañu bàyyi xel di ko aawo yi ñoom dañ fee yàgg te nekk fii te yor sëy yi nag avant dara bu dara amulee ba dara am mhm. boo fekk see na nga nangoo bootu boo amee doom jigéen nga tuddee ko sa aawo d'accord mais li ngay maa ngi ñëw ci yow parce yow may ñëw ak yow dafa am solo parce que ci ci ci ci ci gis nañ léegi peut-être mën mm. nañ ko waxee mm. noonu sax xale xale je veux brosser un peu là non non Modou dama ni ñëwaat ci loolu yooyu dama ni ah dafa ni kawlal moo gën a tuuti ci sëy bisimilah yàlla ni aywaay aywaay aywaay. damaa yor gémmiñ nag moo ko ah, waaw waaw ko maa ngi déglu déglu ko. waaw nañ ko déglu. waaw. kawlal moo gën a tuuti ci sëy. Hmm. te yàlla nee na yow ku góor soo yoomee. Hmm. sëy wàcc na la. Hmm. kon xam nga ni kawlal am na importance. torop waroo sax boo impuissant waroo takk jabar. jaa ngi dégg fi may waxee. ñaata pour cent la ci sëy bi. non dama ni bu fekkee sëy sëy kawlal moom moo gën a tuuti ci sëy te yow góor yàlla ni la sax boo matul waroo sax takk kon yàlla jox na importance sëy ba pare ñu ne saa sëyee ba pare booy sangu benn goutte ndox bu nekk yàlla bindal la tiyaaba kon yàlla fonk na sëy d'accord na ci ànd. d'accord na ci multiplier d'accord na ci yokk xeetu Seydina Muhammad ci kaw nga teg ko ci yoon d'accord kon sëy jaxasoo am na solo waa léegi may ma man damay wax c'est pas le dernier xamu tax sëy am sëy am solo tey tirage sëy dafa am solo tiré waaw tiré dafa solo mais ndooy dafa am loo xam ne ci biir émission bi waaw non non waxal waaw dinaa tudd non moo doon ma tudd xam nga dafa am loo xam dañ ci biir émission bi bul ko dafa am loo xam dañ bi li tax sëy ngeen tourné def lu tax non non ñu ngi de ñu ngi ci thème bi de dama ne li tax sëy ci kaw lal bi lu ñu wax am solo am na solo kenn lu ko solo mais lu tax jikko yi ëpp ko solo dama bëgg ñu delluwaat ci question boobu du du doo yi wàcc yëpp yàlla di ko dund yiw am na lu ko jiitu moment bi nga nekk ak sa jabar ci kaw la di say malaaka yaa ngi leen di bit ñu ngi leen ñu ngi zikkar Mm-hmm. ñu ngi ñu ngi yàlla ci moment boobu. di bëggee am na solo. yow kay yaa ngi confirmé waaw déglu ma ñëw rek waaw déglu ma ñëw. waaw dama ni bilaay li ngeen di wax sax benn mais da ngeen di wax yëpp benn la mais dama ni la dama ni la xam nga déjà Moodu laal na foo xamante ni bokkul mooy góor bu xasee ba tële wala munu dara kenn du koo takkalowul ba ay sey di am ak tëdd ci kolon kooku moom bokkul kooku moom mm-hmm. kooku bokkul ci carte gi mm-hmm. mais sëy li ko jiitu mooy jikko. waaw d'accord il faut ñu nangu ni jikko yi moo jiitu. parce que sëy bi bu ci ay doom juddoo. Mhm. te doom ya ñu lan lay lan lay signifier ci société bi lan loo xam ne day ñëw pour yàq lu war a ñëw pour def mais li tax doom yi di ñëw du baax jikko yi la. Mm. jërëjëf jërëjëf jërëjëf alors Alima. Euh, bi nga tey gis nañ euh, li nga xam ne mooy conséquences yi. ah tu a déjà pris. non te yaaw nekkul na bàyyi di di personnaliser débat bi ci man. su ma nee nii nga ne ma te yow toogoo fa te yow yow ñeent nga yow man yegg man benn rek la woon. man damay assumer yow da ngay wax xam ba teg ci plateau vous plaît léegi. damay ñëw ci Alima ñëw ci yow parce que yow léegi nga daaneel maa ngi ñëwaat ci yow. li ma la bëggoon wax mooy tey euh, conséquences yi. amaana tey euh, du ñëpp ñoo àttan wujj. du ñëpp ko mën a dékku du ñëpp. Mhm. Euh, dëgg la am na ñoo xamante ne ragaluñ ko sax waaye xëy na la la ne ca ginnaaw loolu lañu ragal mooy tey di nga gis benn une daam vraiment tranquille nekk ci ménage nekk ci euh, mariage am di ko gérer comme il faut di def lépp lu ko war mm-hmm. ñu xëy xëy rek takkal ko wuccu xale bu ndaw waaw ba tey di sol sort di tëb ah ay tey ñëw xamu ko mosu ko naanee ndox. Mhm. jëkkër ji xëy xëy rek takkal ko wujj. ba tey ñu ci conséquences yi bi mu ko takkalee wujju xëy na bu doon wujju rek la waaye ku mel ni Pendo. ñëw di di dool mhm. ay talon di def ay short ak di def ay yu kenn xamul di acrobatie. xëy na moom munu ko. <laughs> accepté ko du ko attan. mënu ko attan donc yooyu mën na indi ay li nga xamante ne mooy ay dépression. anxiété yow xëy na ama ba yow sax dangay dem ba dangay perdre confiance en toi nga ne man lan moo ma manqué lan moo tax ba kii tu te poses plein de questions qui restent sans réponse parce que euh, mënuñu la jox benn réponse ba mu ba mu satisfaire la mm-hmm. donc kooku tey nan la war a comporter wee ci situation bu mel noonu en fait problème bi du foofu la tàmbalee xam nga problème bi fu mu tàmbalee mm. ca base ba fañ leen yare yaaw mm. ñun ñun ñii ñëpp amaana bu dul ñun ñii ñëpp tamit du ma ne cinquante pour cent mais presque soixante wala soixante dix pour cent yi suñ yaay yi dañ doon wujje mhm. ñu yor ay doom baay mais ak seen ay maa ngi ñëw foofu laay wax yow ñu yor ay doom baay c'est que xam nga des fois ñun dañuy def erreur boo xamante ni boo waxee ñu ne vingt et unième siècle lañ nekk jikko yi changé nañu yëf yi avancé nañu euh, sondeel lañ doon taal léegi lamp la ñuy taal ak lii ak ak ay détails yu bari mm. mais gis nga jikko yi moo changé société bu avancer mu avancé yow sa jikko biñ la yaree noonu ngay wéyee. Mm-hmm. ñun suñu yaay yi dañuy nekk ñeent ci biir kër gi doo xam kan moo jur kan. Mm-hmm. xale yi dañuy bokk nday bokk baay. Mm-hmm. yow da ngay jur jox kii mu yar kii jur jox kii mu yar kii jur jox kii mu yar. aaw day nekk si biir kër gi amul doom mais mooy la ñeneen ñu doom ndax ku jur da koy jox mu yar. ñu nekk si jàmm nekk ci salaam. doom bàyyi di tuddante ay ay ay ay doom di mm-hmm. mayante ay njëkke mm-hmm. man gis naa du benn du ñaar du ñett ñoo xamante ni seen i doom bàyyi la ñuy njëkk yóbbu Europe balaa ñoo yóbbu ñu ñu bokkal ndey ak baay mm-hmm. seeni doom bàyyi la ñuy njëkk a teral balaa ñoo yóbbul ñeneen ak ñeneen mais ñun daal danoo màgg rek ne société ñëw na war waruñoo wujje yow yow nga juddu ci famille wujje yow sa yaay doon wujje nga gis nga ñu wujjee ci biir kër gi yow nga màgg nga ne yow tey jëloo décision wujjee toog nga sa kër tranquille nga toog nga sa kër cool nga yaa ngi sa jàmm yaa ngi dund dund toi et moi léegi mon mari mon chien mes enfants xaw ma mon chien xaw ma mon chien <laughs> dama sonn mais Alima tranquillité ah. boobu nga nekk noonu mooy li ma la nga dajee ci koo xam ne ku mhm. féroce la mhm. yow xëy na yaa ngi woon sa ménage di ko gérer. falaa doon ñëw dégg naa sa question bi de. Mhm. bàyyiwul sëriñ sa question bi dégg naa ko de. bàyyiwul defante. xam nga kan mooy def loolu. bàyyiwul wax bu ñaaw bàyyiwul fu toog di yàq sa der. Ah, kaay ma ñëw wut kala kaay kaay ma ñëw xam nga kan mooy def loolu xam nga kan mooy def loolu. voilà exactement euh, dañuy dem ba dañ lay dugal ci benn engrenage boo xam ne. yow miinoo xam nga ñan ñoo indi loolu. waaw ñi nga xamante ni dañoo juddoo ci wujje seen yaay di defante ca kër ga moo dàq dem sëriñ ñu juddu di gis seen yaay di sëriñtu ñu juddu di gis seen yaay jubawul ak seeni i wujj jubawul ak wujj ba ñu ñu juddu ñu yar leen ci ñu màgg ci gis ne seen yaay defante rek la def addinaam yëpp ci defante la ko defee. Mm-hmm. xam naa li ma lay wax bu baax. Mm-hmm. seen yaay ci defante la defee viem am yëpp. Mm-hmm. tey sama doomu wujj bi warul tekki. sama doom wujj bi warul am warul jàngam warul te sori mm-hmm. man sama doom yi ñoo war a avancer mm-hmm. sama doom yi ñoo war a def nii te da koy waxtaan ak njaboot gi parce que liggéey yi muy dem di ko jëli di ko indi njabootam la koy jox mm-hmm. ñoom lañuy ñoom lay sang garab yi ñoom lay takk téere loolu la ñuy gis ci cercle boobu noonu nga juddoo ci nga yaroo ci nga màggee pour yow loolu rek mooy lu baax tey boo demee tey fekk ku mel ni ñu takk ko mu tranquille xëy na yaayam wujje woon na wala yaayam wujje wul tranquillité la xam mu toog kuul ci sëyam jàpp njàmburam yow boo ñëwee da ngay ruube parce que loolu nga xam. Mm-hmm. gis nga nit ki nuñ la yaree rek loolu ngay wone. Mm-hmm. doom doomu aadama ni sa jikko mel rek foo dem moom ngay wane jikko ñetti fan la lay may boo ñëwee tey di maslaa suba gisu la day yónnee day yurdu ginnaaw suba gisu la mu yónnee la ndaw ne la ah yaa ngi ma bàyyi ci biti ginnaawaat suba tontu woo ko mu fekk la si biir kër gi mhm. yooyu yëpp ay jikko yoo xamante la ca éducation de base bala ca kër ga nga juddoo yaroo fa màggee fa foofu nga gis defante mhm. di gis ñuy defante ci biir kër gi di def ay yëf kon boo demee fekk ku toog mu tranquille ci sëyam kuul ci sëyam yow boo ñëwee da ngay ruubee am na ñeneen ñoo xamante ni danoo yor seen jikkoy bopp jikko ju bon rek gisuñu ci kër ku leen yar nañ leen fañ leen war a yore mm-hmm. ñooñu la ñuy wax ne yaay dina xëy doom du gont mm-hmm. mooy ñooñu noonu mhm. sa yaay dalay lay yar fi mu la war a yaree sa baay yar la fi mu la war a yaree ñu def si yow ay valeur def si yow ay jikko mais yow nga yor sa jikkoy bopp am sa àndandoo bu bon yor say jikkoy bopp yow <laughs> bu bokkut ak yi ñu la jox nga wut ay clan di do du la ko may ngay wut ay clan di def ay yëf boo ñëwee fekk nit buy sëy sëyam nga ñëw di jaay coquette di jaay jonge te fekk na kooku toog na fa ay at yu bari toog muñ muñam di sëy sëyam mm. ci fair play wax amul coow jibul bu seer yënguwul dara ñëwul mm. jur ay njabootam nekk si jàmm ak salaamam yow nga ñëw nga ñëw sa mission déjà am nga ay xarit yu lay yàpp ne la boo demee génnee ko kër gi am nga say nit yu la yab ne la kii dafa war a génn kër gi te kii ci fondation kër gi la bokk ba ñuy def fondation moo doon rooti ñëw di ko jox maçon yi ñuy def fondation mm. te yow yëgootinoo tinoo mais nga ne yow kii dafa war a jug foofu parce que lan jekkete nga jongoma nga jekk nga mel nga noo war a mel mm. dangaa war a mën a ñëw imposer dangaa war a mën a ñëw wane sa bopp ndax góor quoi qu'on puisse dafa am góor yoo xam dañoo bëgg lu bees mm-hmm. fam góor yoo xam ne dañoo bëgg lu bees bu ñu lu bees rek dañ lay jox bopp. nga defe ne yaa ci ne nga defe ne yaa ci ne ñuy ñuy séddee say caprice lu la neex ñu koy def ak ay yëf bés dana ñëw. te gis nga billahi wallahi na am na kaddu bu ñuy wax hmm. man ku ma ñeewul sa aawo du ma nekk sa ñaareel hmm. ah kon yéen man ku ma sa aawo ah. du ma nekk sa ñaareel bëgg boo xamante ni day day toppatoo jabaram hmm. respecté ko jox ko cër man damaa nangul bu am jabar di doxaani bëgg tëppërli toog fa deux heures trois la takkee huit heures lay ñëw wala dix heures lay xëy <laughs> bu demee guddi dix la fay ñëw nga defee ne yaa ci nekk mu lay doxaan mu am jabar di def lu ko neex nga defee ne yaa ci nekk nekkoo ci de la nga leble dañ la koy fay allah kulli aali. Mm-hmm. jërëjëf euh, Pedro. man li ma bëggoon sànni tuuti rek dafa am lu ma doon bëgg a wax aliment nekk ci kër wujje taxul defante bi am léegi nii li xew léegi nii te xale di jël deuxième position troisième ba quatrième position du du cadre noo nekk ci këru famille man ci këru famille laa juddoo sama yaay jur na doom sax may ko wujjam ba pare tuddee ko ko. Mm-hmm. waaw pourtant Alima moom am na côté bu baax sama turu yaay lay jaar moom ki ko yar. sama wujju yaay lay woowee yaay parce que kooku moo ko yar. Mm. mais dama lay expliquer la fa li xew léegi mooy xam nga lan dan lay takk takk ma takk kii yow da ngay am ay kalan yow de lu yaa waaw la yaa wax sànq dama la doo xam ne dama ne la may ma ma parce que bu ma ko yëgee rek laay bëgg a pëtëxlu ku bu ñu takkee ku mel ni yaa aw mu ni teg xamul dara xam nga tax ñi di bañ wujjee kii ñëw la mooy indi mm. nga dul xam mm, day am ay sëriñ am ay gàllaaj am kalaa am ginnaaw gu dëgër këj xew sax booleen leen fa waree daje yéen ñaar ndeela la yow jour boobu parce que dina woo bara bongo yëpp ñu dar si ko maa ngi ñëw ñuy woote day jiitu ca xew ma dama lay wax système bi xew léegi Sénégal da ngay wujjeeg nit xew am ngeen war fa daje yéen ñaar nga yónni yow sa benn élément mu toogal la fa xaar sa wujj ba xam ñaata lam la takk ak lan la sol yow nga ñëw ak gàngoor gi boo ñëwee yow géwél yëpp dañuy jóg taxaw ci kaw séesi yow la ñuy waxal yaay yaay fay toj ba mu mokk dëbb ko wal ko ba mu bu solee rose sax yow da nga sol benn rose ñu bëri na bu rose bokk rose baa ngi ta seer Oh. yaa ngi may dégg est nga sol balan mm. ñu ne ko balan la sol moom buy ñëw mu sol balan mm. ñu ni balan bëri na balan bokkul balan gii baa ngii ta seer yaa ngi dégg li ma ko est mm. pour déstabiliser la mm-hmm. dem ca jaaykatu or ba mu abal la nga ràngu ba feet dee la ñëw tiital ko dafa am gang ak ak ak kalan bu ne ci ginnaaw mais bu fekkoon ne dañuy takk koo xam ne yéen ñaa yéen a bokk mentalité man sëy du wujjee mm-hmm. du du guddaay du rafetaay du taat du dara xam nga lan la mentalité la ah. wujju mentalité la fi takkal wujju nga téppatiku mbaa nga dof mhm. ndee la dalay ree bañal mhm. buñ la takkalee wujju diiñal ki la gën a diiñ ñu ko takkalee wujju billaahi wallaahi wa taala moo la personnalité. Mm-hmm. Mm-hmm. yow di nga takk di nga ñëw sax nekk deuxième femme pare waaye di. Mm-hmm. moom aaw ba mu ni dégg toog. di la xool ngay tël tël di def mu ni pat. mais bu kenn buuse meetar. Mm. bu benn aaw buuse meetar. bu ñaareel buuse meetar bu ñetteel buuse meetar bu ñeenteel buuse meetar ñeme leen ko. jarul benn góor la rek nan ko bokk nan ko may. jërëjëf <laughs> <laughs> damay ñëw ci ci ci Maodo après ñëw ci yow parce que question boobu seen une question commune yéen ñaar ñëpp ko bokk <laughs> peut-être nañ ne potentiellement parlant tey ñi nga xamante ne mooy ñi nga xam ne dañu am peut vingt cinq ans jëm kaw ñooñu ñoo gën a susceptible tey nekk deuxième femme parce que pratiquement seen ñi ñu waroon sëyal ñëpp am nañ jabar ba pare am nañ aawo donc phénomène boobu aussi mi ngi ci mi ngi ci société bi te te comme li ñuy wax rek sëy dañ ko takkee ci aras je ne suis pas d'accord pas ci sëy ci aras lañ koy takk ban sëy lañu takk aras non comme par exemple tey dañuy wax ni que ni. xam nga Sénégal <laughs> non xaaral ku ñu ku ñu ku ñu wax ne kii dina sëy wala kii dina jaar ci 5 6 sëy. Hmm. c' est que nañ ko ci kaw allah kulli aali ah, day day sëy divorcé sëy divorcé am na koo xam ne tey dañ ne kii moom rek lay sëyal du mës a divorcé ci hmm. àddinaam kooku lay ah, sëyal. loolu bind nañ ko démb tey soogay ñu jiitu na suñu du dëgg. xam hmm. dañu war a bàyyi suñu affaire dof-dof yi ñuy nekki en Afrique. di gëm loo xam ne nekkul il faut ñu utiliser suñu xel yi <laughs> sëy aras lañ koy takk sama àjjuma bu ñëwee ci yàlla laay laay yàlla yàlla laay xaar yow di yàlla ñun dafa ñu am suñu jot bay ñëw di ñu takk takkal suñu sëy wala di ñu boole wala comme kon yow da nga bëgg ne ñun ah. li ñuy jàngal ak li ñuy dégg man ni du dëgg laa la wax nit da ngay am xel dañuy nax kon nit am xel ah bon oui man sëy la ñu aras tu soog nga génn ak sa gel pendant cinq chaque jour ngeen tëdd ngeen mel ni ku ko yor sa jabar xëy benn jour dimas woo ñaari paa ngeenam jàkk ji ci jàkk lañ ko takke takkuñ ko aras. lislaam dañ na biñ la defaree ba pare dañ na. non même non xoolal ne me coupe pas laisse farantu am 45 ans di farantu ba doyal. Monaco. ëmb dindi yàqaat dindi cinquante biir. yow it xëy benn jour biir xëy benn jour. subhanallah mhm. ñu woo paa yi dem ci jàkk ñu ne aras lañ ko takki sëy boobu <laughs> buñ ko takkul aras suñ ko takkee sëy bu ñu takkee aras du tas yàlla du takk yàlla dina takk dara muy tas. mais daganal na ko yàlla ñu na ko mu dee. bu la lay ne ñaata ñaata nit ñoo ko eh. bëgg a takk ñi yëkkati loxo. ce n'est pas vrai loolu amul. Ah, loolu affaire affaire affaire. dellul Monaco nag dellul Monaco. bugg ko mais ah, laisse-moi finir. mais oui leen ma interroger ba pare di. Ah, non danga ne léegi danga wax benn wax. non dama ni la. yàlla amul fu muy taxaw naan jigéen bi ku ko bëgg. mais loolu la ñu jàngal. mais kan moo la ko jàngal ki ko jàngal daf ko fekk wala lu ñu leen lii rek lu ñu ah, lii rek wax leen neen def te arrêté ngeen mel ni ku bëgg eh, ñu ah? déglu suñu xel fii ko da ngay dooy may ma rek may ma dafa am loo xam ne il faut que ñuy xëy benn jour nag yeewu ñun ñëpp ubbi suñu bët bu ñu bëggee avancer. Hmm. Sénégal est le vingt quatrième pays le plus pauvre au monde ñun bi ñu juddoo ba léegi ñi ñaan yàlla man moo Gueye duma ma taalal sama loxo di ñaan yàlla jamais hmm. man alhamdulilah rek laa wax. Ah. ñafe ko lépp lu ma mën a may liggéey pour am ko du ma taxaw di ko ñaan yàlla. alhamdulilah mooy sant naa la. santu leen ñaan rek ngeen def pleur bi ci jooy rek. léegi Seyda yàllaa koy tëdd ca aras. Ah maa ngi xaar di farantu pendant vingt ans. yow da ngeen yëpp yàlla ba yaakaar ni yàlla yàlla ah, nekkul ci kaw suuf si yàlla du ñëw di dimbali kenn yàlla dimbaliwul kenn yàlla mayul fi kenn dara képp ku fi am dara yaa ko wutal sa bopp wax ñu léegi solution yàlla nee na jullit beeg ki ma gëm ak ki ma gëmul yëpp ku liggéey da ngay am waaye nu ñuy def léegi pour am jëkkër laa wax ñaamul xam nga ko ma madame takk yaa xam nga ko madame jox ko xaalis mu takk ma ni xam nga ko na nga war a def ba jigéen góor takk la soo ko defulee góor du la takk yaa ko gën a xam lan mooy sëy bu dagan kon ah, kokal la lan mooy sëy xam nga lan mooy sëy bu dagan mm. sëy bu dagan bu leer ah. bu baax ah. mooy yaag waa ji ki ngeen di sëyal musu leen jote loolu mooy sëy bu dagan musu leen est-ce loolu wax noonu leer na <laughs> mooy sëy bu baax <laughs> sëy bu fan nga mës a dégg ñu ne <laughs> ñamal essayel ba pare doog a takk dagan la wax de dama ne lan mooy dagan ko xam takk ko mais Ndoye xam ngeen ba pare bu ñu seen aras yàlla moo ko tuddul ku ëmbal Sénégal ku ëmbal jabar sa yaay ni la mujjee woo fi doo ko njëkkee yàllaa ko dogal tout ce que liñ tardel Afrique parce que émission conséquence yaa ngi nii yàlla conséquences tax dem. <laughs> les conséquences de la polygamie mi ngi nii de waaye may seetluwu leen ni ñun nous sommes en retard ci monde bi. seetluwu leen yéefar yi sax dañu raw. ñi gëmul yàlla sax dañu raw parce que dafa am ñu gëm liggéey. ñun ñooy musulman yi de bu ñuy dem màkk bu ñuy dem màkk ñan lan moo ñu yóbbu parce que man je suis pas d'accord ak ñun ñoo gën a mujjee ak ñun ñoo gën a pauvre nangam nangam mm-hmm. excuse-moi on est africain on est plus pauvres dans le monde excuse-moi moi j'ai vécu en Europe j'ai un peu bourlingué quand même mm. mine de rien mm. tous on a fait l'Europe ok whatever mais man nekkuma xale boobu noonu tamit tu vois mais mm-hmm. en plus am na lu ma yàlla am na lu ma yàlla mm-hmm. woon sama samay mm-hmm. mm. donc ma ne Sénégal c'est un pays boo xam ne parce que polygé moo tax ñu tardé wala ñu retard wala dara écoute c'est vrai que tout dépend d'un état d'esprit le mental il doit être fort oui je te rejoins ma je suis pas d'accord quand tu dis aussi que ay sëy bu dagan mooy jote nangam jote la di dagan yàllaa ko xam. les mhm. plus pauvres au monde sont les de l'autre côté je connais pas la polygamie limite féministe laa fa xam. la femme est devant et l'homme est derrière. Mhm. mais parce que pourquoi parce que la femme elle gère. Mhm. l'homme il lead. Mm-hmm. mais est la part des choses. Mm. yow yaa ngi nga xam nga fase nga fase tu es néfaste comme personne man loolu laa seetlu. non il est tout le négatif négatif. non non c'est pas vrai je suis positif la. la. ngeen war a bàyyi nag yërmande pleurnicher. moi je suis je reste pas avec respecte pas avec je reste qui ne me respecte pas. laisse-moi finir euh, man une fois j'ai entendu benn borom xam-xam mag Sénégal mu wax benn affaire ci sëy et je vous assure. qu'est-ce qu'il je viens laisse-moi un peu de temps je t'assure que loolu su ma ko xamoon y a des années en mm. arrière kon xam nga ko lu mu wax mm. mu ne sëy mooy li nga xam ne da ngay jël li gën ci gën a baax ci yow li nga gën a sopp nga jël ko jox ko kooku maanaam jigéen bi mm. kooku defaat la même chose la ko ku jigéen ki tamit jël yàlla def ko njëkkee laisse-moi finir kooku ku jigéen jël sëy bi maanaam jël yàlla. kooku loolu moo wax c'est universel partout dans le monde. même japonais yi boo joxee le meilleur de toi ñu jox ba day neex. c'est pas am benn waay ju ko wax fii mais arrêtons. excuse-moi mais en fait t'as pas le monopole du savoir non plus. non non non ce que tu dis là c'est pas. mais écoute ah. laisse finir. je je suis pas là pour prouver à toi ah, c'est vrai ou pas. je fais un débat avec tout le monde ok. donc pour man sëy xam nga lan la. et ça c'est personnel man maa ko man maa ko dugg man maa jàngat ma jàngat boobu noonu. ku ne ak sa dégg-dégg. nee na sëy xam nga mooy lan. nga jël li nga bëgg ak la nga fonk nga jox ko ki nga mm-hmm. yow jigéen nga jël sëy bi. jël yàlla muy sa goro muy sa njëkke muy sa xarit nga am ay doom wàlliwu ñu loolu lañ fi fekk mm-hmm. ala kulli xaal mënoo koo dindi mm-hmm. mënoo dem Europe Europe ba nekk tubaab mënoo dëkk Europe ba dëkk fa mënoo romb af ba doon africain donc calme li nga wax ni bu fekkoon moo fi am on n'aura pas cette discussion là léegi léegi Modou Maïma Ndoye d'accord jërëjëf euh, li nga wax am na solo alors Ndoye damay ñëw ci li nga xamante ne mooy juste rek une à deux questions parce que ñu ngi may signaler ne temps jeex na tàkk tàkk tàkk alors yi lan la li nga xamante ne mooy Euh, yor benn jabar mooy monogamie parce que tey bu ñu nee mënu monogamie xëy na ku jigéen ki day foog na ni moom moo toog moo aak te nee nañ. Mhm. xëy na des fois aussi concurrence dafa baax ci yëf yi daal. ndax ku mhm. nekk euh, mën a gën a redoubler d'effort gën a defaru gën a toogaat. <laughs> yow mhm. Pendo xanaa yow da nga nekk ci ay yëf yi mun polygamie. wala non dafa dafa neex rek daal dafa neex daal dafa neex. Ah! yow des fois nag tey mu nekk fii su ma mu nekk fee waaw man dama bëgg yooyu tey mu nekk fii su ma mu nekk fee jaaw sama réfléchir la mémoire. defaraat <laughs> yu baax yi tubaarkàlla ba nii laa bëgg euh, yu métti yi tey lan la lan la expliqué ñu tuuti rek ci ci tënk rek. mooy temps jeex na waaw conséquences yi doomu doomu bon damay bàyyi ci monogamie ñëw ci mm. polygamie. polygamie voilà mm. conséquences yi c'est mais ki ci gën a dee mooy ku góor soo amee ñetti jabar walla ñeenti jabar ñu ngi lay kompaloo ñu ngi lay liggéey soo dee naan café soo naanee ba ca taat ba ay sunguf ak lu ne nga cee fekk sa ngege naay ba lu ne dañ lay sëf ànd ak yaayam benn bi rax ci dolli da ngay jékki gis sa jabar bu nekk chaque année muy am doom fekk fekkee que yàlla dalaa may wërsëg ñoom dañuy concours am doom ñoom miraas lañ la te deewu boo xam nga lu tax ñuy ñuy concours ak doom seen yaay jural doom ji kër gi ba mu fees ndax su waa ji dee sa doom yi mën a doon doon ñu koy ping pong xam nga du nangoo def planning du nangoo def dara chaque année ñuy concours jabar yëpp di concours am doom parce que parce que am na lu lu nu sint ci yow maanaam gis nañ ni am nga wërsëg waaye su fekkee da ngaa ndóol ni mbay ndooy baan ñoom du duñ la nong du nangoo bari ay doom parce que dañuy xam ne yow yoroo luñu yoroo lu ñu miiraas dégg nga mais su am nga kër Almadi am kër Dakar am kër Touba am kër Tivaouane di di di tukki denc ci banque bi xaalis bu baree bari jabar yi chaque six mois nga ngénte kenn parce que dañ leen dañ leen dañ leen di wax ni euh, jur la kër gi moom mu fees beneen bi mooy mystique bi ci boppam kër goo dem ginaar ga suñ ko roofee roofee roof roof kese nekku ca roof nañ ci leneen nga xam ko roof nañ ko xamoo ko roof soow moo naan fauteuil booy maa ngi koy conseillé góor ñi nga xam dañoo bari jabar bul di toog ci benn fauteuil chaque jour del changer fauteuil yi <laughs> wala fauteuil bi toog sa jabar su papa jabar su papaam ñëwee dee ko jox fauteuil boobu mu toog parce que lam def su la jàppee mën a jàppaale papaam <laughs> conséquences yi bari na beneen bi mooy conséquences yi oh, mooy góor gi nga xam ne tamit dafa takk def lu mu mënul Mm-hmm. conséquence yi mooy xale yi ñooy nar a fay ay nen yu ñu tojul mm-hmm. nga takk ñetti jabar wala ñeenti jabar te amoo foo leen dugal xale yi seen éducation seen santé seen dara du mate am mm-hmm. bari ñu naan dañuy yokk xeet xeetu ku tedd gi c'est pas ça topp sa bakkan la topp lu la neex nit ku baax day def lu mu mën na gaa yi takk ci jabar yi bu baax a baax ci kaw ñu mën ko physiquement e moralement ak financièrement c'est ah, très important maa ngi leen di tàggu di leen gërëm bu baax a baax euh, Serigne Ngagne ak euh, xaritam Modou Gueye <laughs> ci tiire pelante yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba beneen yoon tiire d'élite yi waaw xaw ku dugal na xaw ci baar bi la dal xaw ma <laughs> ay ca Pendo voilà conséquence suñ koy wax man gisuma ci conséquence góor ñi takk leen ba kaat conséquence amu ci dara amu ci lu dul neex neex a am ay njambaxtaan conséquence dafa am bu ma fàtte fe maladie yi non non feebar yi mënoo takk aawo yor ñaari jabar nga feebar feebar jàngoro yi sida walla ko sa ñaari jabar yi nga dee ñu nëbb nëbb li la rey mm. sa ñaari jabar yi génn tënjee ba pare ñu may leen ñeneen feebar bay law mm-hmm. loolu dafa doy warte te mi ngi toj dëkk bi mm-hmm. su góor góor deewatee nañ ko si xool li ko rey lu mu doon bala ñoo maye ay jabar ñaari jabar ya bala ñu leen a may keneen nañ def test xool lu rey seen jëkkër ji parce que fa leen fu leen maye feebar ba dañ koy wàll ñeneen feebar ba di raw c'est ça le problème man nag je me suis dit que benn moo moo mooy conséquence voilà man góor ñi man benn jabar pour yéen góor ñi seetaan benn jabar mooy conséquence wut leen takk leen ba ñeent dund loo leen fekkee leen wax seen mbàkkee nii nii dund leen loo leen fekkee na neex aw ma benn problèm dara man man gisuma ci conséquence gisuma ci benn problème benn man daal li ma gis mooy man nga tak moo ma gënal nga am benn jabar ba pare di doxaan di wëndeelu ci réew mi jël sa xaaj ko tas si xale jigéen te nga war ko man yow takkal rek man moo ma gënal doxaan parce que mm-hmm. doxaan ka ngay doxaan xamaloo ko dara mm-hmm. mën naa nekk keneen ku ku ku téyewul boppam mm-hmm. nga doxaan am ca leneen moo indi indi kenn ka nga am dong feebar takkal ñeent andi ko ci kër gi ñu wujje ko yëf yi saf wujj bi nag ngeen ràmbal ko amul dem ci sëriñ amul dara naxaatu mi génn vaccin yi génn cuuraay yi xeeñ neex sa jëkkën nga di ko defal muy neex yow foofu laa ko teg man. Mhm. man daal deuxième position laa commencé parce que du ma nekk aaw ah, man bëgguma ko. j'aime pas ça être mhm. dans la maison. Mhm. non bëgguma ko. maa ngi fi jaar na di tàggu lan. nan bokk kër moom bu bañulee rek man ragaluma loolu. Mm. ndax xam nga lu tax jàmm ak salaam laa andi man dew ma ci sëriñ dew ma ci maaman dew ma fenn fi ñuy sëriñ too xam nga fan la nan togg ba mu neex yàq ba mu neex bomb yi nay génn à tout moment bomb bu ma la boo ma bett. foofu lañ ko te nañ dem si neex neex bi rek ak sañ sa yeeg yi ku jonge sa jëkkër ki tàngale ko ndox ki raxasal koy tànkam loolu ka dara sol yi nag ah musique sol sol yi waaw sol sol yi bomb di génn aw son fer yu am son yi yëpp génn yooyu yëpp ci la bokk ci guerre bi la bokk mais du guerru xeex bëgguma xeex wujje c'est dans l'intérieur nekkul ci sol wala eh! ko alal wala dara barki rasulillah jigéen ñi nag laa ko jox pour boobu wujje du xeex du xuloo du sëriñ sëriñ moomul dara lu sëriñ defar day yàquwaat Baye Modou kan moo génnoon fii waaye amicoo lay defar bopp bi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu Marème Sode mi ma àndal di gërëm waa Gambie yëpp peuple gambien yi maa ngi leen di gërëm di leen wax fii laa leen def ana bees bi son bu bees baa ngi nii man kañ bu balaa xaamu tëbal ko nii mi ngi ci mi ngi ci kii bi mi ngi ci youtube bi waaw bu kaak mooy ñëw waaw bu kaak taat jeexee léegi mooy ñëw ngi ci youtube bi tubarkala dem leen ngeen seeti ko ah, pen gisee rek ay tàppe dundal loo fekkee dundal loo fekkee ay ca alima conséquences yi. Mm. vite fait rek <laughs> rek ah. ma ne vite fait rek. yàlla conséquences yi de mu ngi noonu rek si njaboot gi rek. Mm. si njaboot gi lay répercussions yi ci njaboot gi lay dal rek xale yi ñooy ñooy payer les pots cassés. te fekk seen yoon nekku ci ils n'ont pas demandé à donc ñoom ñooy ñoom ñooy dund daal métit métit yi ñoom ñoo fay nekk problème yi bari détails yi bari yéen ngeen màgget wala boroom kër ga mujj faatu bàyyi fa njaboot gi mm. ñuy noonoo ak defante ak waxante lu ñaaw yépp wujje bi seen yooyu yaay yi doon def ci biir kër géeg liggéente beeg defante bi mooy topp rek ba ci xale yi di law di dem di dem ba doo xam ba say descendance fan lay yem mm. kon daal def loo mën wax loo mën boo tëddee nelaw mm. takkal ñeenti jabar nga yemale leen te yemale sa njaboot bul xool ne kii nga gën a bëgg doomam yi nga favoriser leen kii buggoo ko ay doomam nga jël leen def leen naxa a kandang ci biir kër gi nañ yemale xale yi surtout mhm. buñ yemalee doom yi nañ yemalee xa buñ jabar yi nañ yemale doom yi aussi ci biir kër gi mhm. c'est très important mais bur jur ay doom ngay xajjale mhm. di xool kii yaayam laa gën a bëgg moom laay gën a jël doomam dafa nekk ci réew mi nga jël sa benn jabar favoriser ko rek ne moom nga gën a bëgg te yaa leen takk ñoom ñëpp indi leen ci biir kër gi conséquences yooyu tamit nañ koy sural parce que rancune lay indee alors maa ngi gërëm nag bu baax a baax ah soxna Ndour borom établissement bokk jom moo ma génn avec boucle ma koy jaajëfal bu baax a baax Latifa Shop moo ko ñaw waaye comme d'habitude Thiané moo may make up rek xale bi nekk parcelle moo may make up waaye nag samay pose rek euh, esquisse ñoo ma ko defaral tey esquisse Napa sama doom ji Napa osé ak waa taw féex bijouterie taw féex ñooñu laay béggee tey wax du am tax doom ma def ni samay or xanaa ne xàqataar la ñu wax tout est possible yàlla na jëm kanam di leen jaajëfal yéen ñu ñu bokkal plateau beeg invité yi Serigne Gagne moom daf may daaneel ñëpp xam nañ loolu comédien moom moom lay seetaan may bëgg ah. Mariama merci beaucoup ci yow ñëw bi Tarba Mbaye ak groupe am merci beaucoup à tout le monde à la prochaine incha allah incha allah jërëjëf Alima alors euh, <laughs> sëñ Gaye dama bëri feeling arrêtel xam naa man damay jéggi rek pour wax ni eh, yàlla na nit ñi baax amiin ñu defar xol yi amiin parce que bu defaree xol yi jukko yu baax liggéeyante du am xëccoo du am dara du am dañuy jàpp ni kenn ku nekk loo am rek loolu la yàlla sédd mooy sa wërsëg kenn bañ a soxore sa morom kenn ku ne xool li yàqu ci yow li baaxul nga jéem koo defar mm-hmm. bu ñu bëggee defar réew mi ndax kenn ku ne defar boppam nit dina toll foo xam ne ndeyam ak baayam mun tuñ ko yar moom rek moom mhm. mhm. kon yàlla nañu yàlla dimbali dimbali réew mi di wax ni kenn ku nekk koo tane nga dimbali ko te yàlla tax mhm. dina bëri lu war a yàqu lu muy defar dimbalante te yàlla tax di ñaanal sama waa ji tamit yàlla na ko yàlla dimbali te waa waa waa Pire buñ ko wóoteelul gisuma leen baal eh. waaw kii moo war a nekk maire maire maire ko te ñun ci wàll wi nekk di yëngatu. Mhm. toujours dafa am ñuy jàpp ci suñu liggéey. Mhm. ba ñu mën a taxawal ay production di def dara. Mhm. donc suñu ñëwee ci plateau yi mel nii dañ leen di remercier. di remercier ay kees waa yoo xam ne dañu gëm dëkk bi. gëm artistes yi nekk dëkk bi ba lépp lu ci am ñoom ñu ci seen loxo. di ci profito suñu frère El Bachir. vraiment nekk koo xam ne ku rafet taxawaay la mhm. ku bëri lu muy comme li may wax nii rek parce que man loolu laay dund man su ma amee 1000 francs dama koy bokk mhm. mais ku am taxawaay la ci biir kees mën na jàppale doomu a yi am fa cër vraiment am ay ambition yu rëy pour dëkk bi mhm. euh, en même temps Habib Kane loolu lay liggéey moom ci social rek la man loolu laa gëm man social rek lay dund biir kees am taxawaay baax mën na jàppale nit di nuyu sama sama frère bi nga xamante ni moom notaire la barki démb dama nekk ci production dem ba ci biir production bi am lu ma soxla moo wax xam nga production dafay laaj xaalis ay mm-hmm. Mm-hmm. millions la mm-hmm. ma am lu ma soxla dem ci moom suma frère la lu tax li ma soxla yow yow damay xaar bañ jox la mairie bi ba pare ah yow yow yow ci kaso bi <laughs> ma dem ci moom vraiment lépp lu ma soxla mu defal ma ko mm. kon vraiment dañuy am contentement di remercier di kontaan ci fan si nga xam ne ñooy mm. seetaan émission bi émission bu am doole la mais émission bi damaa bëgg ñu xam ne yaa ah, awa benn kon rek laa bëgg dugal te buubu nu ko dégg mm-hmm. thème yi fii génn dafay mm-hmm. intéressé Sénégalais yi ba quatre heures du matin du ñu nelaw mm-hmm. kon tamit bu ñu ko jëlee exposé ko fii ci taabal ji gars yi ko raay du dem na mm-hmm. ko gars nay metti kenn ku ci nekk la nga ci war a dugal ko ci mu metti parce que kenn ku ci nekk na nga jàpp ne am na koo taxawee position nekk avocat am war koo défendre soo ko plaidul normal su dee yow yaa ko rey loolu laa ci bëggoon wax jeex na am na solo jërëjëf sëñ Gagne alors ah loolu tax tàgguwaale wu mu eh, eh, eh Modou mon ami après voilà Modou. non mais non c'est normal. waaw gis mais loolu débat la rek après débat bi la bi continue. non ah, Modou damaa gis ne tàggu bi tàggu non attends defoon ci ci ci da lay ruube rek. Modou ci ñi tax man ma gënoon toog ci télé bi. waaw ma toog ci télé bi di seetaan kakatar du ci la bokk. waaw ah. ah oui waaw tàggoo te fàtte ko rek. non jërëjëf a été un plaisir ñu recevoir ci plateau euh, Kakatar lan Euh, euh, maa ngi tàggatoo euh, ci di baalu Sénégalais si une fois je dis boo xam ne c'était pas très bien placé. Mm, di di ñaaxaat sama mbokku jigéen yi di leen wax ne saa ñoom Sénégal àdduna dara doxul. Mm-hmm. que voilà comme ñun ñooy doxal. Ah il faut ñu war a mën a neexal daal def mm-hmm. jàmm. Mm-hmm. xam nga tey bokk tey ak baay tey ah. xam nga te muñalante te xam ne lépp tey jeex. et puis may aussi borom kër yi maanaam kilifa yi. ñuy bind di batale. <coughs> parce que tubaab kayit la xam te jamono ji dafa nekk benn jamono loo xamante ne jamono kayit la dafa am sens mm-hmm. Mm-hmm. kon boo amee say ñeenti jabar mm-hmm. nga am say bien ou pas en tout cas loo mënti am bindal batale yow tam yow tam soxna si del batale yow tamit non whatever je vais à damay damay ah, góor ak jigéen ñi donc na jigéen ñi batale na góor ñi batale mhm. pour ça aussi je profiter pour toucher un point maa ngi tamit euh, masaw waa mbënd mi parce qu'on sait que c'est mhm. l'hivernage mhm. et puis voilà y a y a des pas faciles euh, fan yii nii ngeen xam ne incha allah lépp dina baax parce que boo joxewul xaalis tam nga ñaan nga wax lu baax Sénégal dëkku jàmm la maa ngi remercier yaa aw bu baax ton émission il est excellent di waa diaspora bi sama xarit yi ndax mu fa laa dëkkoon et puis di quelqu'un de pragmatique. ku am loo xamante ne waa Sénégal ñëpp xam nañ ko. Mhm. ma yeesalaat rek sama xaritoo ci moom. parce que voilà via lui je suis là. ak borom kër gi ak toute la team TFM. Mhm. ak Cigiri gi Cawar Maar. Youssou Cigiri Cawar Maar. <laughs> Eh, eh, na tàggatoo loolu ci Cigiri Cawar Maar. cigiriñ fara cigi cawaan maar ah, parce que dafa arñi émission bi ci nekk gumba la borom jaam ñi rek wax ko loolu man sax bambara la laaj nee <laughs> ah, eh, ah, ko gumba la borom jaam ñi ba nga yàq wee jàmbur de bokk ñoom xaadim taal gël xam nga li nee ko gumba ñi gumba la borom jaam yi rek sama maama tëggaloon buuru tugal mu fay ko jërëjëf ah. <laughs> ah, ah, yaama alors euh, euh, euh, Modou Gueye lan ngay tàggatoo ak sa dernier mot pour commencer un débat dina toll foo xam ni ku comprendre lu mën nga mer wala lii te mm. débat loolu la waaw mm. bu fekkoon ku wax ñëpp déglu ba nga pare day géey du neex day fekkee ku wax kenn du la tontu aussi mm-hmm. du am sens parce que ku nekk ak ni ngay gisee mm-hmm. man du ma mës a mer dinaa mm-hmm. ñàngal nag yi mais ku nekk am nga loo war a wax après on se retrouve on est ngir yàlla nañ leen jóg xool lan moo ñu tardeel ñu bàyyi ko jublu ci li ñuy avancel ku amul ñaari jabar boo takkee ñaari jabar man moo Gueye nga am juróomi doom boo ñëwee duma la sarax duma la dimbali <laughs> il faut que ñu bàyyi affaire du yalwaan be yërëmtulu bi nañu bàyyi suñu bànneex bi topp l'essentiel li gën a am solo li lay avancer dans la vie sinon da ngay mujjee di souffrir di sonn Mhm. wëlbatiku di jëlaat ay gaal dëkk bu ne nga dem fa ñu lay dàq bu njëkk bi tubaab bi dañ ñëw di ñu jël par force léegi dañ ñuy dàq ñu ne da ngeen dañuy ñëw <laughs> parce que dañoo pauvre tubaab boo gis benn jabar lay am benn doom di ñafe pour laay fam neex retraite am neex mais munoo am retraite bu neex ak ñetti jabar huit doom salaire u deux cent mille da ngay yàlla du ñëw barki Seydina Mouhamed yàlla du la dimbali yaa ko teg sa bopp yàlla jox la xel nga def lu leen neex ba pare naan yàlla mais arrêtons nañu bàyyi lu ñu wax ñu ne yàlla ba ñu daree Sénégal depuis deux cent ans ñi ngi naan yàlla yàlla yàlla ñëwul ba léegi ñi ngi pauvre ba léegi ñi ngi mënd ba léegi ñi ngi sonn ba léegi du ñu changer système dañuy tàggatoo mais il faut qu'on change hmm. mais toog di ñaan di ñaan di ñaan boo ñuy juddoo ba léegi ñi ngi ñaan il faut qu'on arrête de ñaan bi jéem a ñafeel suñu bopp rek xam ni yàlla ñëwul léegi nañu ñafe arrêtons tàggoo merci jërëjëf jërëjëf Aïcha yéen ñi nga xamante ne yéen toogoon. chéri yaa awa yaa dafa <laughs> jigéen takk foo gis jigéen mais c'est pas possible. ah dafa nagam yaa aw jéggale seef da nga nagam bañ dugalee ñam yàlla. <laughs> jërëjëf euh, euh, yéen ñi nga xamante ne yéen a toogoon di ñu seetaan vraiment di rappeler juste que nii nag euh, tey. Euh, pak ziyaara yi euh, chaque fois moom lañ leen di indil euh, muy dem ziyaara ca Fès donc rendez-vous ak Cheikh donc loolu yëpp nag ñu ngi ko mën a amal du 21 au 27 septembre ba léegi ziyaara vraiment Fès mi ngi nekk en cours nee naa leen woote leen ci numéro bi nga xamante ne mooy 78 604. 66 deux fois 78 604 66 deux fois wala nga def 78 607 <laughs> 47 deux fois alors loolu yëpp nee naa leen nag promotion lañ nekk euh, mën nga nekk euh, dem bu dee yow kese mën nga dem ci 550 euh, 000 bu dee couple la nag ci un million la. xam nga loolu moom defe naa xéwal la donc vol bi mi ngi ci biir hôtel ak restauration circuit Casablanca Rabat Fès nombre de place limité la nag. vraiment gaaw leen ngeen dem euh, inscrire ci li nga xamante ne mooy ziara cheikh boobu ca Fès euh, vraiment euh, dem leen yéen ñëpp ñu ngi leen di xaar te bu ngeen demee dinañ leen accueillir dinañ leen wax li nga xamante ne mooy histoire ya ca place ya ca site yëpp yi ngeen di visiter à chaque fois da ngeen am guide koo xamante ne mooy ànd ak yéen di leen wax vraiment histoire place boobu donc dem leen ziara Fès mi ngi noonu. alors di remercier aussi ñi nga xamante ne ñoom lañ bokkaloon plateau bi ak ñi nga xamante ne aussi. Euh, ñoom ñoo euh, tey taxawal émission bi ba yéen ngeen mën ñu seetaan fi ngeen nekk noonu muy équipe technique bi donc image euh, dem ba Ndaw mu ngi ci son Abdourahmane ak Baye Thiam lumière Mamadou Dia décor ki nga xamante ne mooy Lamine Bayo ak promotion maquillage Khadija Khadija Fall chargé de production Paté Dia montage Racine Racine aussi ñu ngi koy remercier coordination Aïssata Sy l'homme de l'année euh, réalisation Pape Samba moom mooy moom mooy lan. ak Bouba. mooy lan. ak Bouba. Pendo yaa ngi nelaw de. <laughs> nelaw ma sax. yàlla baax na moom mooy réalisateur bu mag bi ci kër gi nga ma naan ay. Pape Samba waaw moom moo mën moo mën ñëpp. Bouba réalisateur Bouba mooy producteur. exécutif xam a xam ne jànguma réalisation ak producteur pour man benn nit ki la. <laughs> jotee ma ak kenn dara. ay jërëjëf donc ñu ngi remercier Samba Pape Samba euh, ak euh, équipe aussi Pape Jean ñoom aussi duñu leen fàtte ndax yéen fi ngeen toog noonu euh, ngeen mën ko am ci. Facebook YouTube ak Instagram yëpp loolu nag Pape Samba moo koy gérer équipe digitale bi yëpp ñu ngi leen di remercier ak Babacar John producteur exécutif bi nag moom mooy Bouba Ndour ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax. di ñu fàtte nag ah suñu PCA. Mm, waaw mm-hmm. ah kooku nag duñ ko mën a fàtte mosieur Youssou Ndour président. ñëw na fi sànq tubarkalla ba nu gëlëm. ñu ngi koy mm, nuyu bu baax ba nu gëlëm teenu dal nag. <laughs> Mm, Alima nga ne Alima danoo gëlëm. <laughs> Alima da nga feebar Alima dama feebaroon wéeru maa ko mën a nettali dama wéeru. <laughs> voilà mu ñëw nuyoo ba pare. kii ne ko ma ne ma ne kii Aïssatou kii kan la Aïssatou ne ma Youssou Ndour. rek mu ne Youssou Ndour ku Youssou Ndour ma ne ko Youssou Ndour mel ne Alimatou Diop. yow gisoo Alima nu mu jógee ne li ko naqari mooy li mu waxul Youssou Ndour soxlaa ba mu dem. ayca donc président ñu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax. Mm. yàlla baax macha allah ayca donc Tarba vraiment yow it euh, amoon nañ contentement dalal la si suñu plateau. yow ak sa orchestre di la bàyyi rek euh, lan mooy sa dernier mot ak lan ngay tàggoo. waaw yaaw maa ngi lay bëggee bu baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo. nga jàllaleel ma ko ci ni ñi nekk ci plateau bi yëpp. di kontaan bu baax a baax a baax ci invitation bi. Mm-hmm. di nuyu waa Grand Dakar ñaari tali nga xam ni foofu laa jóge ñëw fii. Mm-hmm. di kontaan ci fépp fu soppe Tarba Mbaye nekk ci àdduna bi diaspora bi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax. Uh-huh. di yëgal nag sama fans yi sama anniversaire. le 8 septembre. le mercredi incha allah incha allah maa ngi koy defee foofu ci trafic comme que instant yi bi ñu nekk ak contexte bi xew. grande espace yi dañ mënuñu ko utiliser. Mhm. dama koy defee trafic mu ngi nekk relais point E. ok maa ngi ci woo fan Tarba Mbaye yëpp. Mhm. ñu ñëw nag kuy ñëw nag ma indaaleel cadeau ndax sama bis la. ma tuddee ko suma papa suma xarit monsieur le maire de la Médina Bamba Fall. Uh-huh. di nuyu nag ñi may jàppale ñëpp. Mhm. bëgg ma te yàlla rek tax di ma di jàpp ci carrière bi. ku ci mel ni sama yaay sama xarit madame le ministre de la femme madame Ndeye Saly Diop Dieng. nga xam ni moo yaayu Grand Dakar. ami Guèye bu Serigne Badara Gadiaga suma frère ak képp ku bëgg Tarba Mbaye di jàpp ci liggéey bi morceau bi nag maa ngi may képp ku bëgg sa yaay mhm. di ko may yaa awa di ko may ñi nekk ci plateau bi yëpp dina yàgg dina neex avec le Baye Fall de la musique sénégalaise voilà chers téléspectateurs donc dañ leen di bàyyeek ak Tarba nag mu daal di continuer ambiance bi ñun nag fii la jaar di leen tàggu vraiment di remercier ñëpp ñi nga xamante jàppoon nañ ci émission bi a On vous dit bon week-end et dans 15 jours, Inch'Allah, et d'ici là, passez un très bon week-end. Au revoir. Yes, sir. Como é magra, siri, mami. Diz a oi, say, ai. to baylo waynde mo dan sono cutto dombem de jafor buki nampel de ki fokk leen sunu yaay yaay bay gàcce ngàlla te jëg bi boo mere ñibbi waalo màgget yëkku ma ndaak ma daan ma yee yaa kaaya boy sëriñ yoro demba yoro demba boy moom demba gàllu moom dadi dadi di bu rëmbawul mokkal bi yeewul nañ na sànni ni graajoo waaye li tax may way sama yaay baay maay su baaxee ñëpp lay bëgg a jur waaye soo yaay ngay am noo mën a mel considéré yaa awa yaa baax yaay fonk leen sunu yaay yaay booy jàcc ngalam yaa awa moo baax yaay moo tax soo baaxee ñëpp lay bëgg soo bonee benn yaay ngay am noo mën a mel yaay moo sama yaay gàcce gàllam bendoo gisee soo baaxee di nga bëri yaay soo bonee benn yaay yi am nga baax nga bon yaay muy taxaw ni maa jur góorgóorlu